jërë ngeen jëf mbokku téléspectateurs yi dañuy tàmbali ci njeexitalu at mi gërëm leen sant leen ci kóllute bi ngeen am ak seen télévision 2STV euh, nekk tele boo xam ne am na ay programme yu bëree bëri yu ñu leen dégtal ak innovation yu bëri yu ñu leen indil tey seen plateau euh, bii nga xam ne euh, moo di plateau bu discours à la nation du président ñuy fàttali juróom-ñaari at ci ginnaaw benn 31 décembre 2011 ki nekk njiitu réew mi. ca booba nekkoon candidat ñëwoon na fii toog ak ñun séq ak ñun waxtaan bu yaatoo yaatu ci ay ponk yu baree bari ba mu defee quatre-vingt mille kilomètres def trois tournées au niveau de la jaspora tey mu nekkoon boobu président de l'Alliance pour la République yàlla def ba muy yootu li nga xam ne moo du réew mi ci at moom ci 2011 moom leen plébiscité woon mu nekkoon homme politique de ne ci fàttali ñu dégtal leen yenn ci ay kàddoom rek dellu si wax leen suñu plateau tey jii nan lay tëddee. La répression d'ailleurs ne fait plus reculer aucun peuple. Vous avez vu ce qui se passe dans le monde. Je vous ai parlé tout à l'heure de nouvelles légitimités concurrentielles. Les peuples sont capables de mettre un terme aux dérives d'un pouvoir. Donc il faut qu'ils le sachent. Ils ne peuvent pas reporter les élections parce que nous ne je ne l'accepterai pas en tout cas en ce qui me concerne. Je crois aussi que l'État a le devoir de protéger les hommes politiques, de protéger les citoyens de façon générale. Barthélémy Diaz lui-même devait être protégé. à lui de se, euh, à se défendre devant des bandes d'agresseurs. C'est à l'État d'assurer sa sécurité. C'est à l'État d'assurer la sécurité des leaders politiques et tous les citoyens. C'est à l'État aussi de donner suffisamment de moyens et de mettre l'armée dans les meilleures conditions pour assurer la sécurité extérieure de notre pays et à défendre notre intégrité. ginnaaw ba mu jotee ci nguur gi 31 décembre 2018 mu def mandat bu 7 ans euh, ñu def ay xayma xool classe politique bi changé ci anam yu bëree bëri classe politique bi ci changement bi nga xam ne am na ko seetlu nañ ci ñu bees ñoo xam ne dugg nañ ci indi kàddu gu bees gis-gis bu bees ak wax ju bees euh, boo xam ne nemmeeku nañ ci. ginnaaw nag ba ñu defee xayma ak sondage ne kan mooy doon homme politique de l'année bu ñu war a dalal ci suñu plateau yàlla def euh, ci tànneefu nit ñi mu doon Ousmane Sonko di président parti bi di PASTEF Ousmane Sonko nekk candidat ci élection présidentielle yi ñu jëm euh, nangul ñu doon suñu gan ci plateau bi ngir ñu waxtaanee lu bare bari waxtaanee jaar-jaaram bu ñu waxtaanee jaar-jaaram waxtaanee tamit gis-gis bu mu am Euh, ci li nga xam ne moom la nguur gi yore réewum Sénégal ci juróom-ñaari at bu ñu nappee ci loolu mu wax ñu moom gis-gisu ëllëg ak sibir lan la gisee ëllëg ak bu nekkee ne askan wi jox nañ ko linga xam ne moo di nguur gi nu mu fas yéene yor euh, li nga xam ne moo di réewum Sénégal maam mbégte lool ci biir waxtaan woowu dalal fi ñaar samay naataangoo ne mut baan ñu xam ko mu yor yenn kaay bii di Dakar Time maam mbégte tamit dalal fi suñu benn mag Babacar Dione ñu fas yéene séq ak moom waxtaan moom mii di Ousmane Sonko nekk suñu gante ji ci biir émission euh, bi nga xam ne moo di spécial ay ca ñu dem fekk ji euh, ñi nga xam ne moo di suñuy gan nuyu leen waxtaan ak yéen ci li nga xam ne moo di tànneef bi nga xam ne sénégalais yi def nañ ko est-ce que mut baan bett na la sénégalais yi tànn ne Ousmane Sonko mooy homme politique de l'année Pape Alé maa ngi lay remercier ci invitation bi et di souhaiter également bonne et heureuse année par anticipation parce que on ñu ngi ci ay quelques heures pour euh, ñu dugg 2019 d' abord waa kër gi ak sénégalais yi ak yow di la ko souhaiter di ko souhaiter euh, Babacar Babacar Dione et le président Ousmane Sonko donc loolu bettuma parce que quand il faut reconnaître que euh, Sonko depuis mu créé le parti depuis mu commencé def politique musul noppalu ci activité ci poser ay actes euh, jour bi mu génnee livre bi ma jënd ko di ko lire dama toog bon ma ni en fait Sonko nan est-ce que dina nelaw parce que il a écrit un ouvrage sur le pétrole enchaîné ak livre bi te man maa ngi nekk di bind ñaari livre mmh. ça te prend tellement de temps donc loolu tey jii liggéey boobu yëpp mu def enchaîner di ñafe occuper le terrain di di di di prononcer aussi des sujets qui intéressent les sénégalais. loolu moo tax effectivement sénégalais yi euh, choisir ko comme homme de l'année. alors Babacar. waaw Pape Alé maa ngi lay remercier di la gërëm vraiment di remercier waa 2S yëpp. nga xam ni daanaka sama kër la depuis au courant de l' année 2018. seq nañu ay plateau yu bëri di euh, donc loolu yëpp mën nañ ko boole si tey. di souhaiter vraiment bonne et heureuse année 2019 au président Ousmane Sonko à Moutbane. Euh, mon ami et confrère euh, man vraiment bettuma bu ñu waxante dëgg parce que dama yaakaar ni waxuma sax si fës bi nga xam ni Ousmane Sonko ak Pastef fës nañ ko mais surtout euh, bés bés bi. Mm-hmm. waaw parce que koo xam ni aussi 2017 da nga bokk élection législative daal di am à peu près benn député ñu bëri nag doon jugé ni loolu mu am benn évolution bu gaaw moom xam naa ni au cours de l' émission dinañu wax. Mm-hmm. nan la jaare moo tax man dama xalaatoon ni rek moom pour dégg lu bees. loo xam ni am na sur la scène politique ak recomposition politique en cours loolu je crois que am na njariñ nga invité ko pour sénégalais yi gën koo xam. très bien Ousmane kaddu gaa ngoog nga nuyoog mbokku téléspectateurs yi ñu doog a sóobu ci biir waxtaan bi. jërëjëf Pape ñu ngi leen di nuyu di yow ak sa invité yi. muy Moutbane muy Babacar di nuyu téléspectateurs yëpp sénégalais yëpp di leen souhaiter. Euh, bonne et heureuse année 2019 di ñaan yàlla mu doon at bu gën at bu ñu mës a dund Mm-hmm. ñu am ci liñ ci bëgg yëpp ci jàmm ci naataange ci wérgu yaram ak lépp loo xam ne ci day jëmale nit kanam. Mm-hmm. di am mbégte teew fii ci plateau bi di remercier it yi nga xam ne jël nañu suñu modeste personne def ci mm-hmm. choix boobu defe na encouragement la motivation supplémentaire la waaye en aucun cas mënul doon mënul signifier loo xam ne euh, dina tax ñu bew wala ñu teg suñu bopp fu ñu yeggul di wax nii ni nga introduire it euh, am na ñaar wala ñett yu ma ci relevé nee nga 31 décembre 2012 11 defe naa ba ñuy waaj élection présidentielle waaw bi ñuy waaj jëgmal élection yooyu ki jiite réew mi tey invité woon nga ko ci plateau bu ni mel euh, muy ñu egg nekk ci même contexte bi tey ñaareel bi mooy mu doon mu fekkoon mu jóge ci tournée nationale ak internationale boo xam ne def na kilomètres yu bëri. Mhm. defe naa nu nit euh, ci ñaari weer wala ñetti weer yi nu mu tuuti tuuti def nañu lu ëpp 60 000 kilomètres tournée internationale ak nationale. Mhm. ñuy ñaan yàlla euh, ñetteel niroole bi wi am mooy 24 euh, de 27 février 2019 ñu jëlee ko fi. Mhm. te yàlla porter son choix sur notre modeste personne. waaye nag ressemblance bi dayam ci loolu leneen lu mu doon rek yàlla nañu ci yàlla musal uh-huh. loolu daal laa mën a ubbee tàmbale voilà ayca euh, dinañ euh, ñëw parce que dans cinq minutes exactement on va suivre son discours euh, parcours boo koy natt ci euh, li nga xam ne moo di xayma mu ba est-ce que mën nañu wax ne fulgurance bi bett na la wala da ngeen liggéey si liggéeyu suuf boo xam ne sénégal yi ñu ngi koy doog a gis waaw mun naa ne bett nañu bettuñu parce que bi ñuy dugg ci politique lii woon suñu spécificité c'est que dañoo commencé politique à partir presque du néant politique. Mhm. parce que historiquement li ñu tàmmoon mooy nit day dugg ci parti yu mag yi def fa ses ba am responsabilité gouvernementale yu mel noonu ba am tur am notoriété kooku bu génnee ne damay ber sama parti fekk na turam jiitu na ko te léeg-léeg toog na ci alal gu bëri goo xam ne euh, li ci ëpp fi mu jógee nit ñi xam nañ ko. ñun nag bi ñuy dajee matuñu woon dix personnes waxtaan ne dañuy créer parti politique muy 2014 bi janvier 2014. Mhm. defe naa lu gàtt la donc mais ñun dañoo amoon benn conviction mooy yéene gi ñu amoon ci politique. Mhm. mooy changer la manière de faire de la politique dans le discours dans le comportement amoon nañ certitude ni loolu yàlla mun nañ see jàppale est-ce que ça va aller vite. ou pas loolu nag mi ngi dépendre rek ci un ensemble de contexte mhm. mais li ñu jàppoon mooy li li ñu war a def ñun nañ ko def rek sans calcul su ñëwee tout de suite wasalaam su ñëwee dans dix ans it mais li ëpp solo mooy li nga war a def na ko def mhm. et on l'a fait de cette manière sans calcul en restant nous-mêmes en travaillant sur nos valeurs li nga xam ne mooy suñu gëm-gëm ci politique essayé wu ñu ressembler à personne ci politique amul kenn koo xam ne essayé nañu xool noo defee politique ñu ne nii la ñuy defee politique mais valeurs yi nga xam ne moom la ñu essayé dund bi ñuy xam suñu bopp ba léegi yaroo ko màggee ko duggee ko ci administration it liggéey ci ñeneen nekk ci yeneen ñii nekk ci baro bi ñi nekk ci leneen valeurs yooyu boole woon ñu ñii depuis université ñii depuis lycée dañ suy ñëw politique nañ ñëw ak valeurs yooyu luñ ci am nañ ko am ci base boobu luñ ciy nañ ko am ci base nañ ko ñàkk ci base boobu am na nag de un certain nombre d'événements qui ont pu précipiter les choses. jàpp naa ni euh, du ma analyse ñoom ñoo war a def analyse mais jàpp naa ni sama radiation ci fonction publique bokk na ci lu joué ci accélérer processus boobu. sama dugg assemblée nationale ak taxawaay bi ñu fa taxaw bokk na ci également. et le fait que ñu jël suñu responsabilité poser ay débats yoo xam yoo xam ne peut-être tàmmuñu koon dégg ci politique Sénégal. sur les questions économiques sur les questions de gouvernance yooyu itam jàpp naa ni bokk na ci li accéléré parce que dafa andi beneen benn gis-gis ci politique ci sénégalais yi mhm. et enfin le fait que ñu assumer ni ci ni ñuy defee politique il faut ñu innover basé ko ci c'est vrai la critique parce que ñeenti at ñetti at critiqué nañ ba ñëpp ne moom day critiqué kese mais ñu ñëw toog def proposition assumer ko. Mhm. mais gar présenté ko Sénégal ne accepté nañu ñëpp ñëw joxe seen avis critiqué ñu nit ñu défendre suñu position. Mhm. defe naa ensemble facteur yooyu créer na benn benn dynamique politique boo xam ne tàmmuñu ko gis et qui a pu marquer beaucoup de Sénégalais d'abord les élites intellectuelles la jeunesse la diaspora je crois que c'est là où on a eu des marges de progression les plus rapides mais aujourd'hui que ce soit les artisans les commerçants boo doxantoo syndicat wala nga dem ci mécaniciens yi tu te rends compte bien ce qu'on de faire et que ñu ngi suivre discours bi te ñu ngi ciy adhéré. alors ban question Babacar. waaw benn question benn question bu ndaw par li mu wax. Hmm. ñëpp xam nañu li ko radier ci fonction publique bi joué na un peu quand ci popularité est-ce que loolu da ko cherché bi ngay jóg di dénoncer ay faits boobu amoon nga absolument pas maa ngi woon ci politique bi ñu may rajee parce que loolu nit ñi essayé nañ jouer amalgame bi waa nos vis-à-vis ne dafa mer ngemb ma fàttaliku ni janvier 2014 dañu créé parti euh, août 2016 dañ ma rajee de la fonction publique te soo seetee rapport bi ñu yóbbu euh, conseil de discipline lañ ma ci reproché yëpp lu ma wax la ci ay plateau de télé am na loo xam ne émission yu ma def fii hmm. avec Pape Alé la lu ma wax ci plateau de télé la en tant que président de parti kon suñu dugg ci politique dafa jiitu ñaari at suñu radiation mosuñoo toog tam di calculer naan dinañ ñu radier wala duñ ñu radier mais dañu ne woon am nañu droit amul benn texte wala benn statut bu ñu interdit ñu def politique am na ci ñun ñu ñu bokkaloon liggéey ñoo xam ne ñu ngi ànd ak Macky su leen neexee ñu ne Macky est le plus beau ñun ñu décider def opposition am nañ sañ-sañ de Macky ne pas le plus bo donc ci noonu lañ ci demee ñoom bi ñu demee ba amatuñu argument parce que xam nga état nu muy doxee c'est d'abord le baton xool nañu fu ne ut nañ lu ne xool nuñ la kase wala nuñ la génnelee dossier wala yu demee noonu bi ñu demee ba tëj ba ba ci nag la ñu ne nañ ko sanctionné nañ ko rajee parce que un haut fonctionnaire il n'a que son salaire bis boo ko rajee boo moytul mu torox dina tal leneen lu dul toog fii chaque jour di def ay révélation wala di attaquer Macky mais du woon loo xam ne ay calcul la je ne pense pas que am na nit ci àdduna boo xam ne dina sonn ba am liggéey bu baax ba bu ñëpp naw muy mu ñëw ne damaa bëgg a sànq sàggan ba sànq sànq liggéey googu donc du woon ay calcul politique wala leen lu mel noonu. très bien alors euh, je pense que Mout naa la jox kàddu gi après mais parce que dans quelques secondes je crois euh, on va suivre le discours à la nation du président de la République euh, son dernier discours avant de mettre son mandat en jeu donc discours bu am solo la war a joxe tey n'est-ce mu Mout yaa ngi koy xaar. Ah discours bu solo la war a joxe te normalement parce encore. des promesses ñëwaat encore sur les résultats du groupe consultatif ñëwaat encore sur les projets comme comme il a l'habitude de faire hmm. mais euh, on attend on attend on attend alors pour dire aussi téléspectateurs yi ñuy seetaan di ngeen bokk ci émission bi boo leen envoyé seen question très rapidement via les réseaux sociaux Moustapha dina ñëw léegi après ci discours bi wax leen nan ngeen di def pour participer ci euh, question yi joxe question bu leen neex ñuy xool ko càmbar ko jox ko euh, ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko mu indi ci ay tontu euh, peut-être régie d'un moment à l'autre on va le discours du président de la République son excellence Macky Sall qui va à la nation sénégalaise 31 euh, décembre ah c'est un discours traditionnel ah Sonko lan ngay xaar ci discours bi. ben man faralu ma di xaar lu bëri ci discours Macky Sall à vrai dire. ah euh, defe naa ñetti at yu jiitu bala euh, jiitu yële defe naa. 3 avril bi passé ak 31 décembre bi passé rek laa nekkul ci plateau def nañ fi décryptage yu bëri. Mhm. yoo xam ne ci discours u Macky Sall la soit le 3 avril le 31 décembre. Euh, c'est des discours yu ñuy répété avec les mêmes choses qui reviennent. mais ñun liñ ci li ci liñ ci ëppal solo mooy dinañ def évaluation bi après objectivement sur des bases techniques comme niñ ko loolu moo nekkoon euh, discours président de la république gën a gudd d'habitude temps fanweeri minute euh, daanaka lu topp la teglee ci discours mais mën nañ ko jàpp parce que euh, buñ ko dégloo bu baax dafa tiire bilan bilan la tiré bilan boo xam ne moo di li mu liggéey ba mu jotee ci réew mi ba tey jii ak la mu namm def bu nekkee ne sénégalais yi wóolu nañ ko euh, pour jox ko li nga xam ne moo di deuxième mandat mais laatuñ ciy dugg ngeen may ma ñu wax ak téléspectateurs yi parce que mën nañu participer via les réseaux sociaux parce que déjà sa explose au niveau de notre page Facebook l'officiel la 2STV alors je suis avec Moustapha qui s'occupe de ça Moustapha alors mbir yi nu muy demee. alors Papa Ale waaw Aïcha. maa ngi lay nuyu di nuyu say invité di nuyu mbokk téléspectateurs yi ñuy seetaan. Mm-hmm. den xamal ni que mën nañu wéy di ñu se di ñu seetaan suñu page Facebook 2STV l'officiel mm-hmm. ou bien sa ñëw suñu page Twitter 2STV Sénégal même chose mm-hmm. hashtag 2STV laay wooy leen di ñu poser suñuy question euh, par rapport ak discours bi monsieur le président ou bien aussi mën nañu envoyer seen question via WhatsApp numéro bi di 70 704 00 00 déjà mën nañu wax ne euh, au niveau de euh, la page Facebook c'est déjà riche. oui comme ni nga explosé déjà on est suivi par plus de personnes. à l'instant Mhm. et question yaa ngi wéy di ñëw ñu leen di wax nii mën nañu continuer toujours di ñu envoyé lépp a ñëw di ñuy poser seen question mais dañuy teel a jéggalu nag mën nañoo jël question yëpp parce que liñ ko leen a posé boobu dafa bari mais ça explose déjà sur les réseaux sociaux et que on va commencer déjà euh, WhatsApp 2STV euh, euh, l'officiel Twitter 2STV Facebook 2STV Sénégal waaw Twitter 2STV Sénégal et WhatsApp 70 704 00 00 très bien alors euh, c'est pour permettre aussi aux téléspectateurs de participer à cette élection à cette émission hein, parce que on parle trop d'élection Sonko vous êtes rassuré par le discours de Macky Sall ou da nga euh, foog ne ba tey jii li nga jàppoon nga téye ba tey jii ci ni yére yore réew mi. waaw d'abord euh, di seetlu ni ñun ñi comme ni téléspectateurs yëpp ni discours bi mel na ni xaw naa gudd. Mhm. Euh, je me rappelle début mandat dafa ne woon discours yu gàtt lay def def naa premier discours bi saa même surpris nit ñi balaa ñuy taal télé ñu leen discours ba jeex na waaye plus ñuy avancer plus discours bi du gudd. day def bilan defe naa nag li commandant euh, euh, bilan bi euh, jàpp naa ni bi mu demee ba tëju ba war a xalaat ne day bind téere fi ñu ko doon gën a xaaree mooy mu def téere bilan et non pas téere buy fàttali cosaan a geneen a geneen mais déjà dans la forme jàpp naa ni discours bi xaw naa gudd ñaareel bi. mooy su may déglu président Macky Sall euh, je ne dis même pas que je suis resté sur ma faim parce qu'avec le président Macky Sall je n'ai jamais faim heureusement <laughs> euh, mais soo ko waxee de manière abrupte dañ naan waxu politicien la wala waxu opposant la mais le premier constat bi may def mooy ci domaine yi muy traité yëpp diggante li président Macky Sall di wax ak li muy jëf ña yàlla ak yàlla la domaine yi mu traité yëpp bu ci mujjee mooy ci domaine politique waaye boobu defe naa sa chroniqueur yi moom sax def naa tey def def na ci benn sortie euh, mais dama koy commencer rek ci volet économique parce que su ñuy évaluer nit surtout ku ñu dénk muy président la république dañ ko war a évaluer par rapport ak programme bi muy doxal ñu fàttali nag ni programme bi mu biñ ko fale woon yoonu yokkute la waaye comme matul woon programme teel na ko wàcc doxantu dugg ci SND SNDS ba pare ñëwaat ne léegi defaral nañ ko ab plan boo xam ne jàpp na ni moo gën ci plan yi ci àdduna bi yëpp muy plan Sénégal émergent kon su ma koy natt tey dama koy natt man ci plan par rapport ak plan Sénégal émergent ma joxe ci quelques indicateurs parce que bu mu doon ci waxu waxu politicien bi ñuy def bi ñuy lancé plan Sénégal émergent 2014 dañu am ay objectifs ñu assigné woon seen bopp bi njëkk ma jël ko ci taux de croissance parce que ñoom dañoo faral di wax taux de croissance naam taux de croissance am na Sénégal waaye. nee na mi nga ko jëlee ci 1,7 yóbbu ko ci 6,9. waaw taux de croissance am na Sénégal mais ñaari mandar ñaari observation laa ci bëgg def yu gàtt bu ci njëkk mooy dañoo nekk ci tendance mondiale croissance ba suñu zone bi UEMOA wala cadre CEDEAO wala Afrique généralement dañoo nekk ci période. Euh, croissance générale parce que contexte mondial bi moo ko permettre kon du loo Sénégal moom Sénégal mun nañ ci ëppale tuuti wala mu am ñu ko ci ëppale mais globalement dañu nekk ci tendance boobu te li ko waral mooy su dee ay économies yoo xam ne c'est des économies structurellement dépendantes comme suñu bos bu tendance mondiale bi baaxee les cours mondiaux surtout mun na am répercussion bu ñu teglee ñaar ñetti hivernage yu baax mun na am répercussion mais bu ñu nee baril pétrole par exemple yéegaat na rek mooy li xew taayale c' est le sauve qui parce que du croissance structurelle naa ci dellu si. deuxième observa observation bi mooy croissance naam am na waaye c' est pas une croissance pour le Sénégalais parce que soo jëlee commune boo xam ne téeméer boo jël juróom-ñetti fukk ak lu tegu mu nga ca loxo ñeneen nga jël say marché public li ci gën a baax mu nga ca loxo ñeneen. nga jël say ressources naturelles lépp a ngi ci loxo ñeneen boo defee croissance it ñoom ñoo koy génnewaat ci réew mi moo tax croissance boobu wàññiwul pauvreté tey suñu taux de pauvreté dina atteindre 71 virgule 6 pour cent dans certaines comme ay Kolda nous sommes parmi les 25 pays les plus pauvres waaye du croissance boo xam ne dina créer emploi parce que croissance balaa muy baax rek mooy li ëpp ci croissance bi des mooy li ñuy wax une croissance inclusive mm-hmm. loolu mooy première observation mais ba tey li ñu projeté woon ci cadre PSE ci croissance amuñu ko ma fàttali ni projection PSE yi taux de croissance 2014 dañ ne woon 4 virgule 9 pour cent la war a am te loolu bi ñu defee PSE par dañu génn ñetti scénario scénario tendanciel scénario optimiste ak scénario pessimiste ñu yàlla may ñu nag scénario optimiste bi lañu nekk mooy amuñu crise cours mondiaux yi flambéwul au niveau na euh, sous-régional amuñu yenn déstabilisation yi donc scénario bi ñu am mooy scénario favorable kon waroon nañu atteindre objectif yi mais 2014 dañu ne woon 4 virgule 9 pour cent la ñu la ñu la ñuy am ñoom ñu am 4 virgule 3 pour cent donc atteindre ñu ko 2015 ils avaient dit 7 virgule 6 virgule 7 pour cent ñu am 6 virgule 5 pour cent atteindre ñu ko 2016 ils avaient dit 7 virgule 6 pour cent ñu am 6 virgule 6 pour cent atteindre ñu ko 2017 ils avaient dit 8 pour cent ñu ñëw am 8 pour cent atteindre ñu ko donc moyenne bi ñu ne woon. moom la parce que yaa ngi jum foofu 8 virgule lan ñaata la ñu am. non ils ont 6 virgule 8 pour cent. Mhm. te dañu ne woon ñoom 8 la ñuy am. Mhm. donc moyenne bi ñu jàppoon ñoom diggante 2014 et 2018 mooy moyenne nu 7 virgule 15 pour cent de taux de croissance actuellement. en attendant ñu boucler 2018 ba am résultat yi mais soo jëlee ñeenti premier at yi ñu ngi à une moyenne de 6 virgule 5 pour loolu c'est bien dama la expliquer. Mm-hmm. parce que dañuy wax atteindre des objectifs. dama la bëgg wax ni malgré que la ñu ngi ci scénario optimiste bi mooy li ñu yaakaaroon yëpp ci prévision am na. Mm-hmm. mais su dee dañ ko jël ci wàllu taux de croissance atteindre ñu ko. waaye ma dellu si ne taux de croissance boobu desul Sénégal les 8,4 pour cent sortent du Sénégal les les 84 pour cent sortent du Sénégal wala les 8,10 pour cent la ca des Rossiti moo fi des moo tax ça ne permet pas de résorber le chômage ou de créer de l'emploi loolay problème Sénégal soo jëlee beneen indicateur muy PIB nominal bi ñoom dañoo projeté woon ne dañuy am 7 997 pour cent 2014 ñu ñëw am 7 557 ñu ne 2015 8 735 ñu ñëw am 8000 ñu ne 2016 9 648 la ñu bëgg am ñu am 8 712 ainsi de suite soo gisee may jox indicateurs yooyu léeg-léeg chiffre day xaw a day xaw a rébarbatif pour ñu bëri mhm. mais dama bëgg ñun suñuy wax ñu bañ ñu ne waxu politicien la parce que lii ma joxe ni yëpp ay chiffre ANSD ak DPE la yoo xam ne c'est les agences de notation de l'État man du lu ma créé yeneen ak yeneen mun naa ko wax soo jëlee ci suñu contre-performance en matière de recette fiscale dañu ne woon taux de pression fiscale 18,81 pour ñu war a am en 2014 ils sont à 14,9 mooy 4 pour ma wax ni norme UEMOA yi c' est 17 pour cent norme UEMOA yi atteindre ñu ko nga ñëw ñu ne 19 virgule 9 pour cent la ñu waroon am 2000 2015 ñu am 15 virgule 8 pour cent 20 virgule 4 pour cent 2016 ñu am 15 virgule 8 pour cent 20 virgule 7 pour cent 2017 ñu am 15 virgule 5 pour cent donc foofu it atteindre ñu ko ay gap yu extraordinaire la moo tax amuñu yenn capacité yi. pour financer nos projet looloo waral nag jël avion def délégation wër àdduna di leb di leb di leb ba tey su dul woon li ñu changé li ñuy wax euh, euh, euh, année de base de calcul des agrégats dañ ko changé ci 2017 bii. Mhm. su dul woon li ñu ko changé taux d'endettement tey eggoon na presque 80 pour cent ci ay manipulation chiffres pour mun a wàccaat ci benn niveau bu raisonnable kon mun naa jël yeneen indicateurs yeneen indicateurs ma ñëw nag ci secteurs yi. ma jox la quelque mënu moon jël lu bëri parce que bëgguma mu gudd mhm. mais dama lay jël quelques secteurs que tey yow lañ bëgg yëngal pour nga wax ñu carrément yow lan nga bëgg agriculture lan lañ ci waxoon ñoom dama lay jox quelques annonces ñu defoon agriculture mhm. waxoon nañu usine dessalement eau de mer dégg nga ko ci discours bi nee na 2019 lañ koy commencé te moo ko annoncé woon bu yàgg en principe ci première phase 2014 2018 bi la roon am démarré sax defu ko déggoon nga ñu ne création 100 à 150 projets d'agrégation filière haute valeur ajouté et élevage amul xam nga lu tax amul parce que l'objectif bi ñu amoon moom ci ci kii boobu mooy nu ñuy def ba créer de la valeur ajouté ñu bañ a génne produit brut mais loolu soo ko defee te amoo politique industrielle tey laa koy dégg mu ne léegi deuxième phase bi boole na ci ay projet mooy des projets industriels il n'y a jamais eu de projet industriel dans la gouvernance de Macky Sall économie nga mus gis mu développé te amoo ay industrie il n'y en pas dans le monde musul am donc moo tax foofu ils ont rate tey meew maa ngi yàqu ci àll bi produit horticoles yi ils sont obligés de les exporter bruts non transformés ñi ñu koy yóbbu transformé ko ñoom def ko ay jus de fruits ñëw di ñu ko jaayaat à des prix très chers nga jëlaat euh, euh, ci ci toujours ci filière ci ci agriculture bi développement de trois à quatre corridors yi objectif bi mooy woon comme cours cours mondiaux yi ci arachide bi dafa baissé woon ñu fexe ba yenn agriculteurs yi ñu réorienté leen ci ñu produire euh, des céréales ak yu mel noonu mais là-bas aussi ça a lamentablement échoué laaj leen ñaata corridor la ñu tudd soo jëlee ci wàllu éducation dañ ne woon dinañ def ay construction de résidences universitaires loolu mu ngi avancer c'est à actif am na bu ñu ci inauguré temps yële mm-hmm. waaye par rapport ak liñ ci waroon def sur l'ensemble des euh, de l'espace universitaire des na lu bëri ñu ne woon construction cité savoir livré guñ ko dégg naa am na lu ñuy def booru jam ñaajo mais ba léegi il n'y a pas cette cité du savoir te lii li tax ma ciy insister mooy ci temps wu PSE 2014 2018 bi la woon ba léegi egsiwul ñu ne woon dinañ def un réseau d'instituts d'enseignement supérieur technique defe naa benn moo ci fonctionnel tey à Thiès la cee des am na ñeent yoo xam ne nañ ñu ngi ci ñu ngi koy tabax kon foofu aussi les objectifs n'ont pas été atteints soo jëlee ci wàllu infrastructure chemin de fer Dakar euh, euh, Tambacounda Kédougou Bamako nee na ñi ngi ci phase d'étude ba léegi te ils avaient dit que dans le cadre du PSE ci première phase bi la bokkoon ñu ne ko fi ñukk dem jël 1200 wala 1400 milliards dem dugal ko ci seen train express régional alors que en terme de d'apport économique d'incidence ak le nombre de gares que loolu li mu doon desservir ak li mu doon transformer transporter ci ay marchandises moo ëpp impact économique fuuf nga jël ils avaient annoncé un tramway à Dakar boobu waxatuñ ko sax nee na ñi ngi phase étude kon boobu itam defuñu ko port sec de Kaolack ba léegi ñu ngi xaar donc yooyu it ba léegi egsiwul parce que dama bëgg au moment de faire le bilan sur la base de ces projections ñu ne fan lañ ci toll en matière de mine newoon na relance du projet intégré sur le fer de la Falémé boobu ba léegi déggoo ci dara taay nañu xëy ne ngi koy jox ay turc coow li ne gàñ parce que condition yi ñu ko bëggoon joxe mais li leer ba leer mooy eh, eh, li engagement yi mu ci jëloon ci état étape 2014 2018 loolu foofu la yem ñu ne projet intégré Falémé composante première composante bi muy woon chemin de fer Dakar Tamba boobu wax naa ko deuxième composante ba léegi muy port minéralier de Bargny boobu it ba léegi yaa ngi dégg coow li ci am ci wàllu foncier ci wàllu nu conditions yi ñu ko joxe ci wàllu financement bi ak ci wàllu gestion bi ba tey mënuñu koo livrer fii ak deux mille dix neuf deux mille dix huit deux sax dee na tey jii. Mhm. comme il il avait pris ci wàllu santé construction et équipement d'un centre anticancéreux centre boobu amul ba tey te ñëw dañ koy def jam ñaajo mujj gi appareil chimiothérapie bi ñu ngi ko yóbbu ci euh, nu mu tudd hôpital Dalal Jàmm bàyyi fa benn infirmier. ñu am problème pour pour appliquer ko te dafa ne woon dina livrer hôpital anticancéreux bi ça n'a pas fait nga ñëw ci centre hospitalier de Dantec bi ñëw dañ koy transformer en un grand centre hospitalier à part un bâtiment administratif le projet ba léegi demul <laughs> soo jëlee ci wàllu tourisme woon na site touristique Joal Fignon site touristique Joal Fignon boobu ba léegi nee na ñu ngi ci étude yi soo demee foofu dara newu fa soo ñëwee waxoon nañu site touristique Mbodiène boobu nee na ñi ngi phase étude te dañ ñëw dañ ko livrer ci période boobu ak Pointe Sarène bi terrassement la ñu def defe naa benn hôtel moo fa amagum donc tey Sénégal soo bëggoon indi fii 3 millions de touristes ak touriste tourisme li mu mun a andi cim réew en terme de trafic aérien en terme euh, euh, de toutes sortes d'économies qui tournent autour mhm. tey munoo am loolu au Sénégal parce que amuñu capacité d'accueil Côte d'Ivoire bii à côté mi ngi développé benn projet de construction de 150 réceptifs hôteliers qui avance très rapidement alors qu'au Sénégal tous nos réceptifs hôteliers sont en train de mourir soo jëlee au niveau des zones aménagées ma yem ko foofu yeneen yi ma bàyyi ko les zones aménagées uh-huh. euh, cité d'affaires des affaires business park bi mu waxoon boobu it mi ngi noonu tey xam nga ni jam ñaajo affaire amagu fa soo jëlee zone bouge quand waaw non soo rombee di nga gis quelques batiment mais dama la ne man uh-huh. dama bëgg ñu ne su ma jëlee engagement ci euh, sama programme uh-huh. ne lii naa ko def ci période tàngam su période boobu jotee war nañu mën a évaluer ci loola parce que loo ne dinaa ko def ci 4 ans war koo def ci 10 ans problème am na même zone économique sociale intégrée bi c'est la même chose te li tax rappel bi yëpp am solo mooy li ñu lebi ji woon bu leen fàtte ni 2014 dañu def PSE andi seen financement ci cadre ps e bi ne PSE bi lañ ci soxla woon ñoom ci financement bi euh, amoon nañu une partie qui était acquise 5737 milliards ñu waroon dem uti un gap de 3 948 milliards jël fi seen avion ay avion sax feesal ko dem Paris ñëw ne am nañ sax lu ëpp li ñu doon ut léegi nag loolu lépp ñu lebi woon ak li ñu ne am na lii lañ ñëwoon dañ ko ciy def te lii egseegul nga bugg nag jëlaat avion dellu ne maa ngi dem lebaat d'ailleurs mille laa soxloon jox nañ ma mille foofu problème am na fa moo tax damay bëgg suñuy ñuy évaluer bilan dañ ko évaluer par rapport à ça su loolu weesoo nag. mun nañu dugg léegi ci euh, discours am su soo ko buggee mun nañ ko jël point par point. bu nekk nan sama chroniqueur yi posé question. ayca fooy fooy fooy commencé Babacar. dégg naa dégg naa li mu wax par rapport au discours. Mm-hmm. au discours euh, du président Macky Sall qui a été certes très long. mais ñëpp mën nañoo comprendre ni bilan la bilan bu mu doon def par rapport au sept ans yi nga xam ni def na ko Sénégal mais li may ñëwaat mooy li Pape Alé commencé tout à l'heure en 2011 le président Macky Sall ñëw na fii am na lu mu wax un peu programme yoonu yokkute am na luñ ci gis mu changé ko euh, plan Sénégal émergent ak fi mu toll. mais ñun euh, ban ban kii moo mën a am entre taux de taux de croissance taux de croissance ñu ngi koy gis mu ngi jóg ak par exemple par rapport à l' activité humaine aujourd'hui dañuy gis ni à chaque fois ko bu kii amee. jeunes yi liggéeyuñu est-ce que yow. yow par exemple bis boo euh, bu ñu la élire nga nekk président de la république est ce que da ngay insister un peu sur le taux de croissance bi nga xam ne ñu mën a yaakaar ni dëkk baa ngi dox par rapport aux bailleurs euh, aux bailleurs internationaux mais dëkk bi ci lan nga mën a insister pour ñun taux de croissance boobu Sénégal yi. Séné inclusif Sénégal yi man koo dund. jëriñoo mën koo mën koo gis. njëkk mooy taux de croissance ay économie yu bëri sax du ñu bëgg a wu ci taux de croissance indice de euh, développement humain et mhm. indice de développement durable boo seetee même au niveau international yi ñu signaloo léegi mu nekkoon dans un premier temps les objectifs du millénaire euh, léegi ñu yokk ci développement boo seetee critères yi ñuy génne wax ñu sax ay taux de croissance c'est des critères yoo xam ne sa tourne autour de l'homme du développement humain parce que li ëpp solo am réew bu la naan 1 pour cent laay def ci taux de croissance te boo ñëwee gis ci paj mi nit ñi ñaa ngi faju correctement soo ñëwee gis ci liggéey mi xale yaa ngi am liggéey soo ñëwee gis ci njàng mi niveau jàng bi baax na pourquoi tey les pays scandinaves ñu placé leen premier largement devant même les grandes puissances ay Suède ay Danemark ak yooyu nee nañ c'est les parce que c'est par rapport à ces indices de développement humain ñoo ko si léegi les les indices de développement durable moo tax taux de croissance quand les gens disent que mais li ñu bëgg a mooy li ëpp solo mooy lan moo créer croissance bi ak à qui profite la croissance c'est les deux questions qu'il faut poser et qui sont pertinentes au Sénégal tey soo seetee croissance bi dëgg ñoom dañu ne c'est tiré par l'investissement public c'est tiré par le secteur primaire également investissement public lu ci ëpp mooy dem lebi pour def des investissements qui n'étaient pas prioritaires pour le pays parce que man je le dis haut et nga jël xaalis bu dul jeex ne maa ngi def un terre wala maa ngi def Ila Touba te boo demee Touba tey hôpital bu baax amu fa assainissement amu fa ndox bu baax bu nit ñi naan amu fa yow tu t'es trompé complètement d'objectif parce que balaa nit di tal nekk ci autoroute bu baax na tal faju bu baax su feebare su amul sax mun a faju na fal na tal lekk bu baax na tal ay doomam mun a am système éducatif bu baax na tam tal suñu tollee jàng wala liggéey ñu war a mun a am liggéey ainsi de suite ainsi de suite soo ñëwee jël 1200 milliards ne maa ngi koy investir sur un train wala jël des milliards ne maa ngi dem tabax ay immeuble jam ñaajo alors que moi j'ai fait le tour du pays week-end bële maa ngi woon dans le Fouta mais soo demee dans le Fouta da ngay da ngay da ngay c'est décourageant ce qui se passe dans ces trucs là niveau d'infrastructure zéro niveau d'équipement zéro pratiquement dara amu fa j'ai aimé benn image dañ may yóbbu ñuy dem euh, ci benn dëkk bi ñu demee ba foofu ñu ngi jógee Ourossogui gi di dem ci dëkk boobu mais bi ñuy dem yoon bi 35 kilomètres la mais rang-rang bu méttee méttee métti métti mais dañ dem ba ci benn croisement ñu ne ñu léegi il faut ñu wàcc fii ñu won la parce que croisement bi mooy dem dëkku président Macky sal mais ñu ngi ko defar tali bu rafet bu set wicc def ci ay lumières yu leer nañ alors que yoon principal bi mun nga taxaw foofu une semaine oto du forom mais yoon principal bi ñu ngi ko bàyyi noonu mais soo demee ba seet niveau d'infrastructure indice yi ñuy jël yëpp par exemple soo jëlee au Sénégal de manière générale le nombre d'hôpitaux qu'il faut pour une personne nga xam ne norme OMS dañ ne cent cinquante mille personnes benn hôpital amul fenn fu ko remplir au Sénégal fenn tu as ay cent mille personnes pour un hôpital suñ la nee un Sénégalais une personne pour un médecin tu as ay li gën a tuuti te fii la ci biir Dakar c'est vingt cinq mille ou vingt sept mille personnes pour un médecin gynécologue noonu ainsi de suite ainsi de suite. Mais donc seet lañu benn relance seet lañu quand si bilan au président Macky Sall par rapport au taux, de croissance wala en tout cas budget bi mu am jusqu'à ay ay milliards ça lui a permis de réaliser des choses sur fonds propres comme on dit. non non non maa ngi maa ngi ciy ñëw parce que parce que pour te dire li ëpp solo pour que croissance bi dellu il faut que la croissance soit portée au maximum possible par des Sénégalais dans son discours dafa wax benn wax ça m'a fait rire li tax ma ne li muy wax ak li muy def dafa ne euh, un secteur privé fort porté par une vision et un leadership politique moom lan mooy vision am ci secteur privé ak lan ban leadership politique moo ko porté parce que ku bëgg a le secteur privé Sénégal doo signer les accords de partenariat économique parce que notre secteur parce que suñu secteur privé dafa munagul avec le secteur privé français wala allemand wala yu demee noonu mosul am ci àdduna parce que tey app accord de partenariat économique mooy supprimer naa droit de douane supprimer naa les droits de porte ñoom mun nañu ñëw comme ils veulent dugg suñu réew du ñu fay droit droit du ñu fay dara ba pare ñëw implanté wu mais foog nga ni l' agriculteur sénégalais mun na compétir ak l' agriculteur allemand foog nga ni l' industriel sénégalais mun na compétir avec l' industriel français le président bañ na signé pendant huit ans pourquoi moom mu ñëw rek comme moom lu ko France wax defal moom lay def mu gaaw dem signé ko heureusement que comme c'est un accord sous-régional il faut que les 16 pays de la CEDEAO euh, ratifient or le Nigéria a man duma ko ratifier parce que man maa ngi doog a lancer sama programme de transition industrielle bu ma ko ubbee léegi gars rey ma pourquoi Union européenne bañ a signer le traité transatlantique avec les États-Unis mooy mooy APE bi parce que ñoom nee nañu États-Unis moo leen ëpp doole tant que réglé wu ñu yenn préalable yi du ñu signer yow nga nekk la dernière zone économique du monde Union européenne nekk la deuxième zone économique du monde Macky Sall dem signé loolu ku bëgg a protéger ton secteur privé parce que dégg naa ko dans un discours mu ne leen way il faut vous préparer ah la concurrence arrive les Marocains viennent les Turcs viennent mais foog nga ni les Marocains les Turcs ak yooyu dañoo xëy xëy rek toll noonu dañ leen protéger seen réew financé leen gis nga nos acteurs priv là ñu brave lañu dégg naa sénégalais yu bëri naan way Auchan baax na fi parce que Auchan bi mu ñëwee la ñu commencé am lu baax et cetera may leen su doon lu lu lu jagul ci réew mi wala lu traîner rek ñu changé ko dañu waroon njëkk a changé mooy nos hommes politiques dañu waroon jëli ay japonais ñu ñëw ji diriger réew mi wala ay chinois parce que nos acteurs nos acteurs privés ñi ci nekk formel comme informel jàmbaar lañu mais il faut ñu am facilitation yu état bi def les privés nga ñëw ñu jox la suñu marché public parce que sa réew moo ñu lebal xaalis yii ñuy dem defi ay club de Paris la dañ leen naan nañ leen jox xaalis suñuy réew. kenn ku ne li may joxe suñuy société ngay jox marché yi muy benn xaaral mais ko mu ne mu ne quand même PSE bi non 53 pour cent 50 euh, pour 53 pour cent du budget en tout cas des financements entreprise sénégalaise lañ ko jox loolu xanaa moom statistique am la ah. soo jëlee premier phase bi rek soo jëlee terre bi ak Ila Touba bi pratiquement ñaar yooyu rek ak peut-être euh, autoroute bi dem truc ñett yooyu rek lekk na pratiquement 60 pour cent du budget ñett yooyu ñan ñoo ko yor est-ce que ay entreprise sénégalaise lañ fii la ñuy toog di dàqante ay sous-traitance ñu leen di imposer prix yu leen neex mais dañ koy jox xaalis ne ko da ngay jël suñu entreprise même dans des domaines yoo xam ne ñun mën nañ cee am compétence wala suñ ci amul compétence le minimum mooy nga ne entreprise biy ñëw di nga di nga def joint venture avec entreprise sénégalaise deuxième deuxièmement di nga transférer technologie troisièmement di nga fay impôt Sénégal et quatrièmement di nga employer des Sénégalais ñeent yooyu yëpp benn amu ci quelle est ta question. waaw benn question laa bëggoon posé xam nga tey jii euh, Ousmane ñi bëgg a remplacer. ñoo ci ñoom lañ gën war a focaliser ko Macky nekk déjà loolu waaw. comme daal di Macky avant mu nekk wàllu jël engagement wax Ousmane président en dehors du constat et des critiques est-ce que mën nga par rapport ak notes yi nga jël bi nga wax sa financement yi nga koy jëlee sa timing bi nga koy réaliser ak moyens yi nga jël ñetti axes benn ñaar bi moo la man de manière globale hmm. lan mooy suñu gis-gis ci financement parce que lépp ngi fii nag ci téere bi au moins bind nañu bu Sénégalais waaw moo tax dama ne dama koy wax parce que lu ma yomb la parce que lu ma xalaat la ba bind ko ba noppi foofu laay waxee bu njëkk bi dafa wax ci agriculture bu njëkk bi dafa wax ci industrie kon moom reconnaître na ni sept ans yi mu jiite Sénégal industrie doonul yitteem te ñun ñu ne kenn mënul développer am am réew sans industrie amul moo tax dans le modèle économique bi ma proposé fii dama ne maillon bi central bi mooy l'industrie il nous faut impérativement travailler à industrialiser parce que moo ñuy permettre maa ngi ciy ñëw hmm. moo ñuy permettre au ñuy exporter de produits bruts ñun lan la exporte exporter soo xoolee le tableau des exportations du Sénégal on exporte du poisson brut hmm. parce qu'on ne transforme pa ñi ngi koy génne ñoo koy dem jëlaat sardine bi def ko sardine bi wala yeneen jën yi def ko ci pot ñëw di la ko jaay pot bu gën a ndaw ñu jaay la ko ay 1500 1200 alors que ñoom jëndewuñ ko dara on exporte de l'or brut bu ñu ko transformé fii nos orfèvres même mënuñu jot si or bi ñuy def Sénégal dañuy dem fu ne di ko wuti. bàyyi ma terminer mais mais soo ma dégloo ma parce que il faut que je parte d'un constat d'abord pour dem fu ma la jëm. Mm-hmm. on exporte des produits horticoles bruts mooy euh, euh, euh, nu mu tudd pomme de terre beeg ñoom ma produits maraîchers mais fruits yi ak légumes yi on les exporte bruts. on exporte même suñu si commencé pétrole ak gaz on va l'exporter brut ñun dañu ne suñu programme soo jëlee ci wàllu napp gi benn wax na ci pêche bi mais waxul li tax pêche bi doxul parce que problème pêche du joxe nit ñi ay ay ay ay gaal subventionné ko du jël mais loolu yëpp soo leen ko joxe te mënuñoo jot ci jën bi suñu demee Mauritanie ñu téye téye leen fa parce que jël nga suñu géej gi jaay ko dans des accords de pêche à des bateaux usines

ma ne léegi notre logique non non yow xam nga ko non non non non sànq da nga wax lu leer da nga ne sénégalais mu ñëw lire livre bi kon bu ne xam nañ ko peut-être yow xam nga ko parce que lire nga mais mais mais li ma bëgg a foofu ah. mooy d'abord il faut ñu am une réappropriation de ressources moo tax ñu ne ñun il nous faut des usines de transformation des produits halieutiques de capsicling mais balaa loolu xanaa arrêté licencié mais foofu laa doon jëm may dogg parce que xam nga tam <laughs> il faut raisonnement dafa am solo ci wax uh-huh. soo ma bàyyul ma raisonné li may wax du am sens su ma la nee damay def ay usines mu ne ma balaa loolu il faut nga euh, nga régler problème accès oh, loolu laa doon développé uh-huh. j'ai dit sama livre li ma wax dañu ne ñun première chose mooy dootuñu accepter mu am ay bateaux étrangers yuy ñëw di napp de depuis la côte jusqu'à 12 000 maïs suñu pêcheurs yi rek ñoo fay am droit napp débarquer keneen ku ñu signal accord it au delà des 12 000 maïs da ngay débarquer Sénégal muy benn loolu dina tax jën bi ñëw Sénégal hmm. bu jën bi ñëwee nag bu jën bi amee nga régler aussi la pêche la question de la pêche illicite ak les les fraudes au tonnage yooyu yëpp am na fi am na un rapport Macky Sall a ngi ci nee naa na ko génne parce que depuis 2000 presque 2000 2011 ou 2010 def nañ boo régler problème yooyu ba jën bi accessible nga doté wu aussi des moyens de surveiller tes côtes avec des navires patrouilleurs ak yooyu. foofu la ñu yor yëpp ah, équipement mais yooyu jënd na ci jënd na ci yu bari. wa non yooyu est-ce que vocation bi loolu la. loolu si si moom la yóbbuwoon Mauritanie mais il faut renforcer. Mhm. parce que soo amee ay navires patrouilleurs ba pare géej gi géej gi jaay nañ ko it ça amul sens. bu jën bi dellusee nag di nga mën a def des usines de transformation appuyer le secteur privé avec des schémas de financement que j'ai décrits ici. ñu ne dañoo soxla am des usines de transformation ici au Sénégal ñu renforcer les capacités ba mun a respecter les normes ñuy demander pour le marché américain allemand ak feneen gannaaw bu ñu jëlee li ñu soxla fii parce que ñu nit dañoo soxla di lekk ay coof ak yeneen ah, deuxième bi deuxième bi ma ñëw ci agriculture bi li nga wax c'est trop général déedéet non non baal général mhm. da nga naan bu ñëwee accord de pêche su ma défini dinaa am tant de d'entrée de fonds usine bi dinaa ko tabax fii ak fii ak fii te délai bi ma koy réaliser lii ak lii ak lii la mais li nga wax tu es trop dans le comprendre comprendre sama raisonnement man bëgguma am xaalis non non non sama raisonnement non attends attends cest dire que man li ma d'accordul mooy cest dire que bu fekkee da joxe ay ay projet il faut précis un projet par exemple président Macky Sall wax na damay def PUDC damay def par exemple euh, Ila Touba bien que Ablaye du ma ko def def na ko fii montant financement bi nii leen ko monté durée d'exécution bi nii la tey jii dama bëgg li nga wax ci wàllu. xam nga xam xam nga da ñaari question xaar en fait dama la njëkkoon développé ma bàyyi la la pêche da nga ñuy wax quand lan ngay def ak li ngay def xaalis bi foo koy jëlee. monsieur Ban ak délai d'exécution bi au moins. da posé une question que j'ai très bien comprise ma bi parce que financement bi maa ngi ciy ñëw da ngay tey rek. da nga wax pro njëkk ma ne la premier dafa am problème bu tax mënuñoo def loolu tey soo fi defoon ay usines de pêche surtout tout le littoral ils ne elles ne rien parce que jën amul ma ne la mm. d'abord premier combat bi loolu la boo am réglé combat boobu ba pare ngay doog a mun avec nos notre secteur privé mm. nga ne leen léegi on va mettre en place un système d'encadrement un système d'accompagnement fiscal ak yeneen ak yeneen xam nañ ñu ñuy accompagner des entreprises li ñu bëgg mooy un secteur privé qui est lui aussi patriote qui va investir dans le secteur et qui va avec les mesures techniques d'accompagnement transformé au Sénégal je revenir sur le financement longuement dans l'agriculture wax naa ko c'est la même chose problème mu agriculture Sénégal mooy tey ñu continuer benn agriculture saisonnière di xaar taw bi ñëw foog ni mun nañu régler problème bi il faut que ñu xam ni on doit aller vers une augmentation de notre capacité et ça commence par la maîtrise des des facteurs techniques tey ndox mi amuñu ci lu doy wax naa ci sama livre bi ni premier acte bi ñuy posé pour am ndox bu doy mooy la fameuse revitalisation des vallées fossiles. président engagement la engagement la président bu ñëw annoncé ko. Mhm. boo demee ba ci biir daw parce que Mauritanie nee na d' accord uma ñun nag Mauritanie moomuñu Mauritanie dañoo bokk ombs OMVS dafa ne mun nga prélever jusqu'à une certaine capacité ci ndox mi jox nañu capacité yi et tant que ça n'impacte pas sur les besoins du barrage dañoo soxla ñun mun a utiliser surtout en période d'hivernage fleuve bi day am crue bu bëree bëri di déverser wu ci océan bi ndox boobu soxla nañ ko muy benn parce que souvent on dit rapport de bon voisinage on a fait beaucoup de bon voisinage avec la Mauritanie jox nañ ko suñu rive gauche jox nañ ko 50 pour cent suñu gaz tey suñu citoyen nga fa nekk fa dans des conditions quelquefois extrêmement difficiles donc ñun on a dit d'abord revitalisation des vallées fossiles que ce soit à partir li ñuy prélever ci OMVS wala OMVG mooy fleuve Gambie fleuve truc ak suñuy fleuve intérieur yi ñu yokk capacité yi engadre les paysans par rapport aux techniques de semis ak nu ñuy nu ñuy améliorer euh, euh, moderniser un peu l'agriculture suñu modèle nee nañu sur le foncier et sur une réforme agraire dans ce livre en disant que non am nañu réforme agraire bu ñu proposé assumé ko réforme agraire boobu lan moo ci nekk. mooy que tey ñiy jëfandikoo suuf si muy béykat yi il faut ñu admettre ñu am un droit sur euh, suuf si mooy il faut ñu titriser suuf si. Mhm. au nom des collectivités locales collectivités locales mën a délivrer de baux pour que ñu mun koo utiliser. même pour aller vers les banques am lu ñu war a soxla li may wax ni moom la commission nationale de réforme foncière proposé woon mhm. mais Macky Sall nee na les maires sont irresponsables bis boo leen joxee suuf si ñu def ci lu ne peut-être que moom bi muy nekk maire il l'était mais ñun jàpp nañ ni tey problème suuf bi fondamentalement. mais on a remarqué aussi que problème bu problème foncier yu ci ëpp yu ñu gis tamit ça touche à des maires. non problème foncier yi ci ëpp mi ngi touché d'abord l'administration centrale. waaw mais les maires. dañ dañuy dañuy bokk ci groupe bi comme certains gouverneurs comme certains préfets mais fondamentalement mhm. problème bi mi ngi jóge ci administration ak ci les acteurs politiques ma ñëw ci ma daaneel ah. foofu boo ko defalee noonu ci secteur bu ne muy élevage muy feneen ak feneen mun nga après lancer une politique industrielle mooy bëggatuñu suñuy produit ñu koy génne brut dañoo bëgg ñu koy transformer ici am de la valeur ajouté mhm. à partir de ce moment nga ne ma financement bi ñëw chapitre bi ëpp solo ci li ma bind mooy financement parce que suñuy homme politique Macky bi nga wax y compris demal PSE y a rien sur le financement benn page bu ndaw moo wax ci financement mhm. man dama ne la financement état non le politique publique dama la wax politique publique lan moo koy financer source financement état yii la bu njëkk c'est la fiscalité ressource souveraine moo ci ëpp wax naa la ni on est contre-performant en matière fiscale même la norme euh, bi ñu bokk ci cadre communautaire remplir ñu ko ñaareel bi mooy say ressources naturelles nga gérer ko au mieux de tes intérêts. ñette cela veut dire que yow boo ñëwee toog da ngay remettre en cause tous les contrats qui ont été signés par rapport a lépp moi j'ai dit ici je le dis clairement on va renégocier. parce que dafa am loo xam ne mënul ne. mënoo am sa pétrole am sa gaz am sa or am sa leen ñu ne la pour cent nga am ci droit yi. te bu ñu demee ba war a partager les parts de production mënoo mu sekki waane ba dépasser les 15 pour cent. réew du doxee noonu. donc on va tout renégocier et moi j'ai pris l'engagement rek. li ñu waroon fay ci impôt ci transaction titres yi ñu def ñoom Franck Timis ak ñeneen ñeen c'est des centaines de milliards yoo xam ne Sénégal perte na ko avec la complicité du régime de Macky Sall et la responsabilité de l'État ma del non non non ah, <laughs> ñetteel bi pareegu ma ci financement bi c'est ah, extrêmement important ah, ñetteel bi mhm. mooy sa monnaie nga mun a am monnaie boo xam ne da nga koy adapté ci sa économie mun a am un taux de change boo xam ne dafay nekk en deçà. mais est-ce que le Sénégal mën na jël moom rek le risque génn ci franc CFA seul. lu ko tere lu ko dara terew ko. bon foofu ja foofu. non non foofu non non non non non non non attendez attendez ah, ah. dama lay commencer ci lu simple. Afrique 54 pays la je crois. 14 pays ñoo ci am franc CFA. te ñoom ñëpp ñu ngi ci en bas du tableau classement économique 14. Côte d'Ivoire moo ci nekk tuuti ci kaw. Sénégal mi ngi vingt septième te moo ci tane après Côte d'Ivoire ay Burkina ay Niger ak nangam ñoom ñëpp ñu ngi ci suuf Maroc lan mooy monem Algérie lan mooy monem Rwanda lan mooy monem Kenya barki démb dégg nga leen ñu ne léegi ñoom dootuñu leb sax ci devise étrangère seen monnaie le shilling la ñuy lebee ñooñu ñëpp ñu raw foofu ci économie. bu ñëwee bi ni muy tudd amul solo parce que bi mun na tudd dërëm mun na tudd euh, xaalis mun na tudd du tur bee am solo mais li ma la bëgg a wax li ma la bëgg a wax mooy. ñun dañoo wax nii dinañ génn ci franc fa le Sénégal seul. su ma nee dañuy génn ci franc CFA waxin la première option bi mooy il faut ñu am une monnaie dans le cadre communautaire mooy CEDEAO parce que man CEDEAO laa gën a gëm que UEMOA nga xam ne huit pays yu bokk ci yu bokk France la France Afrique moo moo fa yor ñu ne ñun dañuy génn ci franc fa dañoo bëgg une monnaie communautaire CEDEAO monnaie boobu lancé nañ ko depuis 83 y a des problèmes parce que problème yi li mu ko andi mooy. Nigeria mooy le poids fort c'est 190 millions d'habitants Nigeria à lui seul il fait presque 80 pour cent de de de la zone en termes économiques mais ñëpp xam nañ ni Nigeria c'est un géant au pied d'argile kooku soo soo créé ne day bëgg am une voix prépondérante mooy moom mooy décider te loolu mun na andi njaaxum te Maroc nee na dafa bëgg a bokk léegi CEDEAO Tunisie nee na dafa bëgg a bokk parce que ñoom suñu marché moo leen intéressé donc ñu ne loolu première hypothèse boobu dañuy continuer di ci liggéey. mais ñoo jóge ci benn domination daanu ci bu gën a bonati il faut ñu liggéey ci am ay critères de convergence ñun ñëpp su soumettre ci keneen ak keneen ci euh, critère croissance ci critère recette fiscale rapport sociale mooy les mêmes critères que l'UEMOA mm-hmm. suñu pare su dee boobu mënul am ñu ne léegi amoon nañu UEMOA UEMOA monnaie baa ngi dox depuis su ñu nee génn ci CFA mooy France la ñu bëgg mu génn ci CFA bàyyi ñëw suñu seetaan comment comment la France mën a génne mooy na génne ci conseil d'administration bi suñu 50 pour cent réserve ñuy yóbbu trésor français di ko fa joxe dootuñu ko joxe parce que ñun dañ ñu ne jox nañ leen indépendance mun ngeen gérer seen santé mun ngeen gérer seen éducation mun ngeen gérer seen lépp waaye vous êtes des irresponsables pour gérer une monnaie ñun tam ñu nangu ko amaana sax dëgg la parce que soo gisee ni ñuy gérer tey suñu ressources naturel yi suñu gars yi de xam naa ne ku leen joxoon monnaie li tubaab bi naan utiliser la planche à saa yi ñu jaaxlee rek daal di imprimer. mais ñun dañoo ne ñun en tout cas nous ne serons pas. Mhm. des leaders politiques irresponsables. parce que am na pays africains yu ñu raw foofu seen monnaie la ñu yor te ñu ngi koy gérer très bien donc suñu nee France na génn mooy nañu des ñun dans le cadre de l'UEMOA mais problème bi am avec UEMOA aussi mooy li ci ëpp ci France ci président yu bëri ñun ñu ñun ñëpp xam nañu ay France africain lañu. donc ñoom du ñu bëgg lu fâché France mais ñun dañu ne politique économie bu ñu bëgg a appliquer Sénégal mënuñu ko réussir avec le CFA parce que c'est une monnaie d'abord surévaluée parce que dañu def parité fixe ak l'euro qui est pratiquement la deuxième ou la troisième monnaie la plus forte du monde ça ne reflète pas notre économie ñaareel bi français bi ñuy bàyyil franc CFA c'était pour sécuriser leurs investisseurs pour que seen investisseurs yi du ñu supporter risque de change suñu ñëwee fii kon boobu baaxul mu su ëppee sa doole doole sa économie munoo compétitif quand tu exportes tant que yaa ngi nekk une économie d'importation monnaie bu soo amee monnaie bu fort bu ëpp doole sa économie baax na loolu mooy français fa ñun nag dañoo bëgg a inverser la tendance moo tax franc CFA mënul doon monnaie bu baax ci ñun kon suñu mënul am lii ci e mun nañu ko am lii ci CEDEAO boobu lañ ne dinañu assumer suñu responsabilité ñun génn ci franc CFA boobu bàyyi ñi bëgg a continuer sept autres pays su dee bëgg nañu continuer mais loolu processus la néew ma dañ ñuy fal tey suba ñu génn ci CFA dinañ toog ak suñu partenaires yëpp waxtaan ak ñoom. wax leen avec des arguments mais suñu demee ba gis ni mënul dem te ñun ñu am certitude ni franc CFA d'ailleurs réew yu ko yor yëpp ñoo gën a tardé ci àdduna. ñu gis ni kii daf ñuy tardel dinañ jël suñu responsabilité ñun ñu génn ci ah, français foofu laa ko la ñetteel source ñetteel kii non financement bi il faut ma yeggali ko ci li dafa am ñaari question non dafa am ñaari question yoo xam dafa am parce que li li nga wax nii yëpp par exemple par exemple franc CFA boo ciy génn comme li ko euh, Moutbane euh, waxee léegi di nga négocier waat

bu toogee ak Bayern yi dina dina waxaat loolu ne dina taxaw dina taxaw imposer boppam. ba nga beneen mbir bi mooy que ni beneen mbir bi mooy que ni Abdou muy Abdou Diouf muy souvent dañu leen di reprocher ni c'est des gens yoo xam ni souvent bi ñu fiy jógee ah. Mhm. ñu ngi liggéey mais ñi leen entouré seen entourage moom moo am problème donc yow rek man manoo changer dëkk bi certainement que war nga am entourage boo xam ni yaakaar nga fi ñoom par rapport ak politique bi nga bënn mën nañu def ko mm-hmm. est-ce que aujourd'hui commencé nga réfléchir sur des gens crédibles yoo xam ni wóor na la ni boo nekkee à la du pays ñoom du ñu nekk ci suuf di def loo xam ni nekkul noonu est-ce que mën nga par rapport ak deuxième question boobu euh, est-ce que jàpp nga ni lii ñu liggéey ñun ñii ci ñeenti at yi man Ousmane Sonko man rek mais man ab topp laa ci tey suñu mouvement des cadres rek defe naa ñoo ko ëpp ci Sénégal keroog bu ñu koy lancé avec plus de 300 cadres programme bi parce que li mu ban doon expliqué. lii lii maa ngi ñëw lii livre vision la. programme bi ficelé nañ ko ba pare nañ ko gis nga programme bi dañ koy chiffré daté ko chronogramme day am an lépp lu ñu wax rek nañ ne nii lañ koy financé. kañ lay pare na mais ñun on attend xanaa kay peut-être suñu valider suñu candidature ñu doog a génne programme joxe ko <laughs> bon mais nit dafa complexe mais man jusqu'à preuve du contraire parce que ñu logique politique bi ñu ñëwee ci Sénégal 99 pour cent ñi ñëw rejoindre Pastef li ci ëpp mosuñu woon def politique c'est pas des politiciens discours bi ak posture bi moo leen intéressé ñëw dugg ci ci parti bi wan nañu loo xam ne parce que amul lu ñu séddale ci Pastef te tey ñoom ñooy génne seeni dërëm ñooy financer toutes les activités de Pastef kon ñooñu jàpp naa ni am na lu ñu gëm am na ñu la ca des nag expériment expérience la à à la pratique on verra mais man am naa certitude wala am naa une confiance parfaite et totale par rapport ak ñi ma àndal. deuxième bi da nga wax les bailleurs de fonds. xam nga man dama la bëgg wax leen non non. ñaari question da nga koy yóbbaale si même si veine bi la. parce que xam nga yaa ngi wax loolu entourage mën nga yow est-ce que tey jii bu la falee euh, di nga def li nga xam ne yenn poste de responsabilité mm-hmm. appel à candidature. nga xam ne méritocratie la ñuy wax du xeex nañ ak man ànd ak man war naa ko jox ndombal tànk beneen bi moo de yow est-ce que tey jii bu la falee da ngay jóge ci bopp Pastef na ma je ne suis plus président président de parti. non yooyu tontu naa ci fii neena mais xam nga fii ñooñu. waaw waaw li ma ci wax. Euh, déjà ci li ma wax ni dañu war a limiter drastiquement les pouvoirs du président de la République foofu laa tontu ci question boobu bokk na ci ni ñu koy limiter. mooy emprise bi président am parce que constitution bi dafa ne rek le président nomme aux aux emplois civils et militaires et amul benn critère amul dara moo tax tey loo gis ci administration da ngay gis ku ñu épinglé IGE cour des comptes nangam nag ñu jël ko nommé ko directeur wala directeur général moo tax ma ne tous les postes supérieurs dañuy def appel à candidature. poste supérieur c'est-à-dire. mooy les postes de directeur directeur généraux chef d'agence et cetera. mun na gën a yaatu loolu sax. dañuy def des appels ak candidature mu am des comités ad hoc yow soo ko sa bopp déposer sa dossier keneen déposer keneen dossier ñoom ñu xool ñu déposer seen dossier def un tri génne ci les deux ou les trois meilleurs ci profil déontologie dina dugg intégrité dina dugg euh, euh, rigueur au travail dina dugg compétence dina dugg ainsi de suite ñett yi ñu jàpp ni ñoo meilleur ñooy la ñuy teg ci table président de la république nga xam ne moom amatul choix dem tànn ku ko neex quel que soit ku mu signé au moins leer nañu kuy c'est parmi les meilleurs Côte d'Ivoire mi ngi koy def léegi poste directeur général bi ñu ko waree bu impôt domaine bi ñu dañu def appel à candidature Togo mi ngi koy def depuis trois ans ñun ñun tardé benn tardement boo xam ne président de parti wax dëgg yàlla am na président de la république bu dee dëgg dëgg dëgg président de la am na leen lu mu war a tal lu parti man mii sax fi mu ne nii dañ may wax président de parti waaye géré wu ma parti le coordonnateur du parti l' administrateur général mooy géré parti man aw ma jotu ma géré loolu dafa war a jeex Sénégal dafa bokk ci mesures yu importantes yoo xam ne pour limiter les pouvoirs du peuple parce que man pour man le problème du Sénégal c' est l' institution présidentielle dama toog di waxtaan ak gars yi leen man gëw ma régime présidentiel wala présidentialiste man régime parlementaire laa gëm c'est-à-dire mooy régime boo xam ne. changer le mode de scrutin de l' assemblée nationale renforcer le pouvoir de l' ma gëm li gëm man. li nga bëgg est ce que loolu ngay appliqué. voilà est ce que loolu dama wax man li gëm. dama ah, bokk li nga gëm est ce que boo nekkee président loolu ngay appliqué justement est dama la comme par exemple Mamadou ak Senghor. déedéet loolu c'était pas c'était pas ça on avait un bicéphalisme présidentiel. c'est différent donc boo da ngay appliqué régime parlementaire. Ah, bàyyi expliquer dama wax sama xalaat laa wax man waaye dama bokk ci kuréel ànd ak ay nit dañuy waxtaan am naa sañ-sañ wax man sama xalaat dama gëm man nii le bon modèle mooy le régime parlementaire encadré parce que koo tudd régime parlementaire mu ne woy instabilité nangam nangam non le régime parlementaire ne pas forcément instable le régime parlementaire canadien n'est pas instable parce que li tax ma gëm ko mooy du créer benn surhomme benn waay boo xam dañ ko naan yow yaa fi nekk yaay lépp yaay truc mun nga def la neex après tu as immunité juridictionnelle tu as ceci tu soo paree mun nga dem tëddi fële quel que soit loo def mais régime parlementaire li tax mu intéressé ma encadré laa wax mooy déjà le premier ministre dafay am légitimité parce que dañuy dañuy voter à l'Assemblée nationale mu am majorité ñu seet chef de file bi majorité bi mu mu mu nekk le premier pourtant looloo am actuellement léegi parce que semi semi parlementaire. moo am fan. Euh, Sénégal semi parlementaire la déedéet premier ministre bi premier ministre bi il n'est pas élu il est nommé. Euh, premier ministre xam nga par rapport à ses responsabilités non waaye damay wax rek le premier ministre au Sénégal il est élu il n'est pas nommé. Hmm. ba pare amul sax parce que France bi ñu defee seen réforme. non au Sénégal il est nommé. il est pas élu dama juum mais France bi ñu defee seen réforme sax. dañu ne léegi c' est le premier ministre qui qui définit la la politique de la nation fii loolu amul c' le président de la république. Mhm. premier ministre fii benn la politique définie par le président de la moom benn kii la nii rek mais premier ministre moom. Mhm. moom amul solo fii Sénégal moo tax éliminé woon ko fi génne nañ fi sax benn instant mais deuxième attrait ma gis ci régime boobu. Mhm. mooy ki ñuy jox lo lengay dafa dafa am un un une une obligation de rendre compte de manière permanente trois semaine mi ngi assemblée nationale. jàkkaarlook les députés la représentation parlementaire di défendre ses projet gis nga temps yi euh, Grande-Bretagne euh, débat bi sur la sortie de l'euro ak li war a am du benn président buy toog fa fële ni décidé naa def naa lii day ñëw toog ñi nga xam ne askan bi ñoom la ñu fal muy les député di défendre ces dossiers le peuple di déglu les deux version xam mais fii mun nga gis ku ñu fal ba mu jóge fi musoo gis mu toog wax fu ñu ko contredire sax même suy def émission sax. day day tànn ay journalistes ñu préparer ay questions mu ñëw wax. donc mais su ma waxee loolu. su loolu amul it ma terminer su loolu amul it fii li ma fi proposé. c'est un encadrement une réduction des prérogatives du président de la République boole naa ci loolu à li ma wax noonu ci ci ci kii bi nee na les fonds politiques li ñu jox président de la République il faut les supprimer mm. c'est des fonds de corruption jël dans une démocratie huit jox ko nit ne ko ne ko su la neexee nga taal su la neexee nga tëj mu jël waaw parce que souvent yéen candidats yi du ñu leen dégg nag si train de vie de l'État euh, on a l'impression que peut-être boo leen toogee da di bëgg a maintenir ñoom sama bàyyi ma développé rek ci train de vie de l'État mais dama ne la suppression fonds politiques ñetteel bi mhm. parce que bëggoon naa développé lu bëri mais xaju ci ñetteel bi ma bi mhm. nee na la responsabilité politique du président la République président de la république responsabilité juridictionnelle la am mais boo xam ne presque kenn mënu koo mettre en œuvre parce que c'est uniquement pour haute trahison ni la constitution ni la loi ni la jurisprudence rien ne définit la haute trahison c'est quoi hmm. yow mën nga ma wax la haute trahison c'est quoi hmm. ba pare il faut une juridiction spéciale et des conditions de mise en accusation spéciale hmm. ñu ne à côté de la responsabilité juridictionnelle qu'on va préciser d'ailleurs parce wax lan mooy haute bind naa ci ay ay yu bëri yoo xam ne fii pour man par exemple xam ni contrat bi waruma ko signer parce que contrat bi dafa violer le code pétrolier waaye sama rakk a ngi gis ma signé ko loolu pour man c'est de la haute trahison bind naa ko fii et yu mel noonu laa wax mais en dehors de ça la responsabilité politique mooy que le président de la République dafa war a am possibilité ñu destituer ko bu defee yenn fautes graves yi loolu même la France bi ñuy topp nii depuis 2007 dañ ko inscrire seen constitution présidente Brésil bi. Dilma Rousseff ci base boobu lañ ko destitué présidente sud coréenne bi y' a deux ans ci base boobu lañ ko destitué. mooy su amee ay affaires yu grave population bi yëpp génn. ñu ne lii c'est extraordinaire kooku amatul légitimité ak dignité pour diriger pour diriger le peuple. vraiment c'est c'est bien la politisation de l'administration yow yaa ngi nekkoon nekk biir administration du politique. aujourd'hui on a vu des patrons dans l'administration impôts et domaines des ministres des trucs ñu nekk du politique. comment régler le et y a des gens. de Pastef qui sont dans l'administration du politique. Mhm. exemple mooy yow tey loolu dafay vraiment yàqal Sénégal ci lu bëri bëri bëri bëri bëri te loolu naka nga ko mën a résoudre naka ngay def boo ñëwee. la politisation de l'administration d'abord politique euh, dafa am ñoo xam ne yoon daf leen ko tere ak ñu mu ko terewul magistrat yi la ko tere. ak les corps militaires et paramilitaires armée douanier et cetera. Mhm. may nañ leen nag ñu am seen opinion politique may nañ leen ñu wote. Mhm. mais nee nañ leen yéen waru leen def politique. en dehors de ça ñeneen ñëpp dañ leen reconnaître la liberté politique et syndicale mhm. tant que loi boobu mu ngi koy mu noo tere nit def politique. léegi nag déedéet déedéet léegi nag. ñoom les tous les <laughs> cadres de non tous les fonctionnaires de l'État qui sont dans l'administration politique kon soo ma bàyyi ma terminer rek naa la expliquer. pour man tant que ñu ngi def politique violé wu ñu benn loi ci Sénégal li bon mooy li ñuy def jël ay xaalis bu dul jeex di ko du xëpp ci politique bi te ñëpp xam ni position yi ñu toog la ñuy jëlee xaalis boobu waaye du xaalis gu ñu ñàq parce que amul benn fonctionnaire bu mun a am ay millions wala ay milliards yooyu politiqué wala jël même ay auto administration ay leneen di ko politiqué loolu moo garaw deuxième bi man dama proposé dama ne fonctionnaire am na droit politique mais à un certain niveau de responsabilité il faut faire un choix pour man un directeur un directeur général warul def politique bu fës. à un certain niveau. warul ñooñu waruñoo def politique. mooy comme li nga gis rek nekk. sur terrain bi ah, non non xam nga xam nga nit mun na mun na am carte membre parti mhm. adhéré ci parti ne bokk naa ci parti bi mais dem ba ñu ne la yow yaay suñu responsable Médina wala yaay suñu responsable euh, mhm. Ziguinchor wala yaay suñu responsable euh, euh, Louga wala Parcelles Assainies mhm. nga nekk nag tout le temps yaa ngi meeting yaa ngi lii yaa ngi laa kooku laa wax parce que nit mun na adhéré yow peut-être bokk nga ci parti te kenn xamu ko nit mun na adhéré ci parti te kenn du ko xam mais nga fës ci parti ba am ci ay responsabilité ci bureau politique wala responsabilité locale wala yu mel noonu kooku laa ne c'est incompatible ak yenn niveau de responsabilité yi et le fonctionnaire doit faire un choix moi quand j'ai opté pour faire la politique woo nañ ma proposé ma poste directeur mais dama ne bëgguma poste directeur je n'en veux pas parce que je tenais à garder ma liberté politique euh, du benn du ñaar directeur régional directeur régional de Dakar proposé nañ ma ko bu impôt ak yeneen ak yeneen propose nañ lu raw loolu sax mais j'ai fait mon choix j'ai dit je considere que e avant loolu man 2008 lañ ma njëkk a proposé poste directeur boobu je n'avais que quoi ku génn 2001 2008 tu as 7 ans de carrière j'ai refusé parce que j'étais secrétaire général du syndicat ma jàpp ni ñaar yooyu c'est incompatible alors parce que dafa am yoo xam ne mënul ànd donc loolu moom dinañ ko proposer dinañ ko bind changer la loi pour dire que am na loo xam ne mënatul dem mënatul ànd. ça ça loolu donc am apparemment yow da nga prévoir def ay réformes constitutionnelles yu bëri et des réformes de l' administration. mais mais administration c' est l'un des gros problèmes du Sénégal administration. te nag xam naa administration. et train xam nga sànq sànq ba yaa ngi wax yaa ngi wax si ci financement état bi euh, maanaam train de vie bi est ce que mën nga ñoo wax sa gouvernement ñaata ministre. nga compté def ko président Macky Sall waxoon na ko 25 il l'a pas respecté est-ce que yow mën nañoo xaar par rapport ak li ngay wàññi ci train de vie de l'État ñu xam des actes forts yi nga xam ne di nga ko poser pour ñu wàññi dépenses yi nga xam ni ministres yi ak gouvernement bi ñu ngi koy ñu ngi xam nga li leer ba leer. mënoo wax ñaata ministres du ma enfermé wu ci ay fii parce que am na loo xam ne ñu ngi koy finaliser. am na chiffre boo xam su ma la ko waxoon sax di nga ne da ngeen wax rek waaye lii mun leen ko def mais li leer ba leer. mooy am ay ay ay. cinq ministres ak 30 ministres ak waxuma la nag les ministres conseils les ministres xaw ma lan envoyés spéciaux comme léegi loolu sax am na y a des envoyés spéciaux pour aller déposer des listes de parrainage avec rang ministre yooyu day jeex Sénégal du yem rek foofu parce que ñii dañuy wax ministres yi mais am na lu ëpp loolu tey poste directeur poste directeur généraux yëpp dañ ko doubler avec des agences ak yu noonu xoolal li nekk ci am yeeg consulats gis nga les plus gros postes la nag les institutions yu amul benn njëriñ conseil économique social et environnemental kan moom mun a wax lan lay jëriñ Sénégal mm-hmm. au conseil des collectivités territoriales lan lay jëriñ Sénégal mm-hmm. au conseil du dialogue de territoires xaw ma lan ak lan lan foofu la problème yi nekk moo tax dans mes propositions institutionnelles j'ai dit il mm-hmm. y l'exécutif il y législatif troisième institution bi ma proposé dafa di benn institution boo xam ne suñuy réalité nationale laa bëgg ñu daje fa mooy nos institutions, nos autorités religieuses et coutumières. avis consultatif. Ousmane, parce que c'est important question bi dama lay bàyyi nga continuer on va prendre les internautes euh, certain nombre de questions nga tontuwaale parce que ñoom ci bëri na trop trop ñoo xam ne envoyé nañ ay questions mën nga continuer sa réponse waaw donc ñun loolu bokk na ci train de vie de l'État ba léegi bu ngeen xamoon la gaspillage qu'il y a dans l'administration dans Dakar koñ booy romb te doo fa gis benn véhicule AD bu ñu sànni foofu léeg benn pièce bu ndaw moo ci yàqu booy dugg ci service yi mm-hmm. imprimante yeeg nangam nang dañuy sànni chaque fois ñu def ay commandes yu bees parce que ay deal la ci marché public yi ay facturation ay surfacturation chaque deux semaines chaque un mois chaque deux mois nga changé mobilier ñu ne imprimante yi màgget na ñu changé mhm. gars yi recyclé ko ko ñu yóbbu ko au niveau des domaines mhm. ñu jaay ko waa Pàcc Lambaay ñoom ñu wël ak ay prix yoo xam ne ñoom ñu wël baat jaay wala ay libanais wala nañ mhm. li ñuy yàq ci ay milliards foofu rek mën nga ci rationaliser loo xam ne kenn xamul lu mu toll surfacturation sur marché public yi j'ai démontré que defee c'est deux cent trente cinq milliards d'économie chaque année ci surfacturation de marché public mm, ay nit a koy séddoo ay hommes politiques ak ay hauts fonctionnaires il y a énormément d'axes yoo xam ne tey mm-hmm. ma ma jox la ay question fii mm-hmm. am na kenn ku ne vous avez un esprit critique que j'aime bien mais j'aimerais savoir d'après vous qu'est-ce que Macky Sall a fait durant son mandat dont vous êtes totalement d'accord et que vous encouragez euh, man jàpp naa ni avec le président Macky dañu am problème systémique man dama jàpp ni programme bi mu tëral laa àndul man donc soo àndul ci benn programme c'est très difficile après ngay jeex ci biir biir programme bi ay affaire je considère que un programme comme le PUDC l'idée est très bonne mais jàpp naa ni waroon nañ ci def deux fois dix fois vingt fois plus de de budget parce que Sénégal àll bi la ñu délaissé tey tu prends des tu dis PUDC bi yëpp milliards la woon je crois première phase bi pour les douze autres régions ou les treize autres régions alors que soo jëlee investissement diggante jam ñaajo ak euh, li ñuy tabax jam ñaajo ak le TER rek tu es à presque 3000 milliards du simple au au nga ne léegi yaa ngi jox yeneen région yëpp ay truc loolu je crois que l'idée est bonne mais ci financement bi des na euh, soo ma laajee également ci wàllu euh, nu mu tudd l'idée de faire d'autres pôles c'est une bonne idée mais c'était pas Diamniadio le choix ñun on a théorisé les pôles de développement économique lan moo tere woon ñu dem Mbacké wala ñu dem Kaolack wala ñu dem Ziguinchor wala parce que soo bëggee da nga presqu'île du Cap-Vert lu ndaw la il fallait désenclaver Marocains bi ñu ko bëggee def dañu ne ñun léegi on veut aller vers l'émergence donc nañuy naka la ñuy def ba Tanger ñu def ko benn pôle Rabat ñu def ko benn pôle Marrakech ñu def ko benn pôle Casablanca te benn bu nekk c'est distant de bu ci gën a tuuti c'est 90 kilomètres ay 200 kilomètres loolu day permettre nga concentrer les populations chez elles mhm. les gens ne sont pas obligés ñëpp di ñëw Ndakaaru nga créer fa nag passe ah, waxuñu nga ñëw tabax fa ay immeuble de mais des pôles de développement économique la ñu wax c'est-à-dire région bu nekk da ngay xool luy potentialité nga créer un pôle de développement économique par rapport à ces potentialités là région de Cap-Vert am na beaucoup de potentialité ci wàllu pêche ci wàllu euh, zone de Niayes bi ak yu demee noonu foofu ngay def potentialité am soo demee euh, région région du centre parce que da ngay jël plusieurs raisons boole leen am nañu c'est le bassin arachidier am na un potentiel extraordinaire ci domaine boobu soo demee dans la la région sud-est mooy Tamba Kédougou y a un potentiel minier extraordinaire on doit pouvoir avoir là-bas un programme minier extrêmement mmh. de suite donc waaw c'est bien mmh. Aïcha foofu parce que parce que ñu permettre internautes yi participer parce qu'ils mmh. sont très nombreux ci réseaux sociaux yi programme programme Promoville c'est un bon programme mais c'est pas à l'État de faire les villes ana mairie yi parce que bëgg nañu tali bu ñu def ci buntu kër jàmbur sax ñu ne Macky Sall moo ko def. loolu mairie yi ñoo ko waroon def. Mmh. un état central s'occupe des grands axes. ak yu mel noonu. vous avez fait une tournée au niveau de la diaspora sa lan mooy place ak rôle lu diaspora ci sa politique lan lay doon. mais mais mais mais mais Pape moi j'ai pu faire l'Amérique du Nord au moins États-Unis Canada j'ai pu faire cinq pays d'Europe Italie France Belgique et cetera. mais mais mais on ne peut pas développer le Sénégal sans la diaspora maa ngi koy dégg léegi mu tudd diaspora mais la diaspora elle souffre lan mooy problème diaspora man ma demee foofu brièvement les problème les plus saillants la diaspora elle souffre la diaspora bi dañ leen seetaan amuñu protection au niveau des consulats yenn saa yi dañuy am difficulté pour am seen i papier mhm. ku ci am problème foofu de ménage ñëw jël say doom dem tëj am na beaucoup de gens soi-disant clandestins ñu tëj aussi amuñu ndimbal su desee amee mënuñu rapatrier euh, seen diplôme yi ñuy amee fii bu ñu demee foofu duñ leen ko nangu reconnaître da ngay gis ku am diplôme yu kawe duñ leen tuk te yooyu marocains yi nga xam ne ñoom dem nañ ko négocier ay Espagne ak yëpp dañuy reconnaître diplôme suñu permis bii sax soo demee Maroc ñu ne la amoo droit dawal ak euh, kii euh, Europe ñu ne amoo droit dawal ak permis bi mais ñun vision bi ñu gis ci diaspora bi du vision rek dañuy wax les transferts des immigrés les immigrés transfèrent peut-être 2000 milliards mmh. parce qu'on dit si circuit informel bi formel bi. Mhm. mais circuit informel bi moo ëpp. d'abord il faut encadre sax parce que ñun ñooy suñu immigré ñooy fay les plus fort taux de transfert ça va jusqu'à 20 pour cent alors que yeneen dëkk yi ñu ngi ay 7 pour cent. deuxième bi transfert immigré yooyu. Mhm. ça fait quatre fois l'aide au développement et deux fois l'investissement direct étranger bii ñu ñuy sonalee nii. Mhm. il faut ñu capter ko parce que 37 pour cent de ces de ces transferts va ci dundal nit ñi. il faut que ñu orienter ko vers le développement état bi man wax naa ni si lu ñu proposé il faut mettre une banque de la diaspora banque boobu état mun na ne am naa sama 50 milliards ñu ne waa diaspora bi on fait appel ñëw leen bokk ci capital bi ils vont t'amener léegi 100 milliards nga am banque boo xam ne ça peut aider accompagner avec conseil d'administration boo xam ne diaspora bi dañ fiy toog di superviser transfert bi ñuy def te muy profiter à une à jusqu'à récemment benn institution internationale rek duma ko tudd. Mhm. moo doon def transfer bi capter xaalis bi yëpp. Mhm. transfert boobu mun na bénéficier au Sénégal. l'argent qu'on transfère nañ ko titriser état bi suy def appel public à l'épargne li ñu mën a dem jëlee ci tubaab bi. Mm. diaspora bi munoon nañ ko financer ñu def ko ay titres ak ay obligation ñoom rémunéré lañ cay am ñoom mun nañ réorienter lenn li vers la satisfaction des besoins sociaux leneen li dugal ko ci yeneen ay ay activité entrepreneuriale keroog bi ma demee Fuuta dañ ma ne village bi ñu doon defee meeting bi dañ ma ne fii école bi suñu mbokk yi nekk émigration ñoo ko tabax euh, poste de santé bi ñoo ko tabax waaye mënu état bi andiw fi ñuy faj forage bi état bee ko defar mais ñoom ñoo def équipement bi ma leen justement nag ñun li ñu bëgg diaspora bi loolu waratul doon son rôle ça c'est le rôle de l'état diaspora bi la ñu bëgg li muy andi ñu orienté ko vers développement vers le financement de l'économie vers la création d'entreprises muy liggéeyloo yeneen nit ak yu demee noonu parce que c'est parce que l'État a gravement failli li ñu waroon def ñoom ci li jëm ci développement ñu koy dugal soo demee des pays comme la Chine Italie avant moom Turquie mais diaspora bi participer na à hauteur de 30 pour cent 35 pour cent 42 pour cent sax dans certains pays ci seen émergence bii ngay gis mais ñun l'essentiel des transferts nit ñi pour lu ñu dundee la ak lu ñu fajoo mu yem foofu les compétence que j'ai vues dans la diaspora est-ce que xam ngeen ni foo dem ba ci NASA ba ci j'ai rencontré des Sénégalais aux États-Unis ñii ñi ngi liggéey Wall Street mhm. d'ailleurs quand on nous dit oui on nous prête parce qu'on a une bonne notation est-ce que xam nga ni bee la ñu noté Sénégal c'est pas une bonne notation mhm. on nous prête parce que ci nii wala ci nële dinañu fay wala ñu joxe suñu or wala suñu pétrole wala neen jeex na mais fekk naa fa mhm. fekk naa fa ay profil yoo xam ne dama ne Sénégal man xaw ma ndax dañuy font te ñoom ñëpp mbébét bi lenn la. dellusee suñu dellusee on ne nous implique pas parce que tant que défaut politique bokk ci parti bi duñu la jox on préfère jël ñeneen ñoo xam ne leer na la ñi yow xam nga ni fii Sénégal am na ay ministres yoo xam ne suñu leen bindalul discours ñu wax loo dégg. Mhm. y a des gens extrêmement compétents yoo xam ne tey am na proposition ñu def fii j'ai dit nous on veut faire aller vers l'industrie automobile mhm. parce que ma daanale foofu. Mhm. Union européenne dañu ne à l'horizon 2040 véhicule à combustion dootu fa daw essence gasoil ñoom transition écologique lañu nekk véhicule électrique véhicule solaire et cetera mais ñoom Union européenne ils vont pas arrêter de produire parce que marché chinois ngi fi marché africain ngi fi nous sommes nous allons être bientôt 2 milliards 500 marché indien ngi fi marché américain ngi fi mais dañuy délocaliser ma toog ak un bu ma ñëw seet si Aston Martin lay liggéey Aston Martin véhicule de luxe rek lay defar jaar na Peugeot Renault jaar na Citroën jaar na Ford léegi mi Aston Martin te concepteur la foofu mu ne ma il faut que ñu capter délocalisation yooyu parce que ñooñu ils vont venir te ñun on a une position extraordinaire bu ko defee suñu délocaliser ñëw fii dinañu amaale transfert de technologie ma ne ko sëñ bi mu ne ma ne ko bëgguma délocalisation hmm. dama buggu ñu am suñu industrie automobile même suñ koy def en joint venture avec d'autres pays africains progressistes pourquoi pas le Rwanda pourquoi pas le Ghana parce que yow nee nga ma fi nga mus a liggéey firme automobile yi yëpp fekk nga fa ay Sénégal yoo xam ne ñi ñu ngi ci pneumatique ñi ngi ci moteur ñi ñu ngi ci pare-brise ñi ngi ci pare-choc ñi ñu ngi ci domaine yëpp ay sénégal yi nga fa te patron lañ fa kon ça veut dire que am nañu de la matière grise bu ko mën a def am nañu tey or am nañu tey pétrole ak gaz xam nga pétrole 45 pour cent bi rek mooy essence ak gasoil li ci des yëpp les 55 pour cent loolu la ñuy wax les produits dérivés. moom la ñuy mm-hmm. defaree airbag moom la ñuy defaree fauteuil yi moom la ñuy defar am nañu faire faleme nga daaneel kon yow ça veut dire que ñun am nañu lépp. pour war a mun a am ambition. man de suñu ma falee 2019. sama ambition mooy 2030 au plus tard ñu ne oto bu ñu defaree fii bu jaar yoon ñu ngi koy produire ni ñëpp loolu nag li ñu koy may mooy sénégalais yi nekk am compétence pointue sur le solaire sur. dem naa Canada benn sénégalais jël ma yóbbu ma benn usine de traitement des déchets des déchets solides moom université Québec lay nekk scientifique mais mooy encadrer usine boobu xam nga ni ñun amuñu usine bu mel noonu mbëppës décharge à ciel ouvert et du moins loolu mënul continuer hmm. mais nga am sénégalais yu mel noonu un peu partout et qui ne demande qu'à rentrer et à travailler vision boobu lañu am ci diaspora si ça répond à sa question. alors euh, sur l'emploi des jeunes aujourd'hui ñëpp xam na ne le problème le plus lancinant c'est le chômage lan mooy solution boo xam ne. boo ko indee sénégalais yi jeunes yi dinañ am liggéey. xam nga d'abord ñu poser problématique emploi parce que souvent bëgguma tellement ñuy poser problème emploi en termes de emploi jeune emploi vieux emploi femme. Mhm. parce que tout Sénégalais en nage de travailler a droit à un emploi te ñëpp ko soxla man dama bëgg ñu poser débat bi en termes de ko quelles quelles condition créer pour que l'emploi existe il faut que l'emploi existe nag on ne va pas chercher peut-être Macky Sall moom mi ngi joxe suñuy marché bàyyi chinois yi ñu indi chinois yi bàyyi indien yi ñu andi indien yi bàyyi keneen keneen mais ñun loolu duñ ko nangu <laughs> quand les conditions de l'emploi seront créées sénégalais ñoo fay keneen du jóge fële ñu jox ko liggéey bi suñuy doom toog ak suñuy rakk comment créer l'emploi na gis nga emploi li koy créer c'est de créer une économie endogène mooy li ma wax depuis le début mooy nooy def ba tey la richesse que tu créer nekk richesse boo xam ne dafa introverti et non pas extroverti extraverti loolu mu ngi jaar ci li ma njëkk a wax amuñu suñu tissu industriel mënul créer conditions yi parce que suñu tissu industriel c'est quoi suñu secteur primaire et foofu bokk na ci yeneen indicateur de l'échec de Macky Sall parce que croissance bi ñuy wax ni yëpp ça n'a pas transformé structurellement notre notre économie moo tax te moom premier objectif PSE bi c'était la transformation structurelle de l'économie moo tax tey mu toog ba premier phase bi jeex premier mandat am jeex premier phase PSE jeex mu ne deuxième phase bi industrialisation laa bëgg a dem suñu tissu industriel lii la secteur primaire bi mi ngi woon en 2014 à 15,6 pour cent secteur secondaire bi mi ngi woon à 20 pour cent secteur tertiaire bi moo ngande benn peeru ngande boo xam ne. ba dañ moo moo moo ba dañu bañ ba dañ ko scinder en deux léegi def ko tertiaire et quaternaire. loolu économie post industrielle yi économie yi pare seen révolution industrielle ñooy mel noonu mais les économies en développement seen secteur primaire ak secteur secondaire la ñu war a fexe ba mu am doole mais. tey secteur tertiaire boobu nee nañ mooy tirer économie kan moo yor secteur tertiaire bi kan moo yor les banques au Sénégal kan moo yor les assurances au Sénégal kan moo yor le secteur de la téléphonie mais de la téléphonie au Sénégal suñu premier objectif mooy tey d'abord inverser le tissu économique ñun suñu priorité mooy nu ñuy def ba gonfler le secteur industriel le secteur secondaire parce que secteur boobu mooy créer emploi c'est la transformation qui créent de la valeur ajoutée e qui créent de l'emploi yeneen secteurs yi leur capacité de de une banque peut te faire cinquante milliards de bénéfices mais banque bi amul amul cent employés parce que ça ne crée pas de l'emploi mais une industrie crée énormément d'emplois et ensuite il la distribution qui suit parce que li ñuy produire il faut mu am ñeneen ñu koy distribuer day day jaillir ci secteur commercial bi mais en même temps day jaillir secteur primaire bi parce que li tax ma ne la ils raté li ñu bëggoon def ci agriculture bi parce que le maillon central bi waroon am mooy industrie moo existé wul kon munoo def transition boobu premier combat bi foofu la ne ensuite boo inverser le tissu ba développer secteur primaire développer secteur euh, secondaire ngay doog a xool nag au niveau du secteur tertiaire parce que pour man dafa am ay secteur stratégique dans un pays le secteur de la télécommunication ma ñëw ah. Sénégal pour moi tey danger bu rëy la suñu sec li ëpp ëpp doole suñu secteur télécommunication. nekk ci loxo ñeneen mu nekk ci loxo étranger. gis nga les américains bi ñu bëggee duma Saddam Hussein dañu dem gis euh, Siemens parce que ñoo ñoo yoroon secteur télécom bi yëpp ils ont saboté tout le réseau. secteur bancaire néew ma banque étrangère amu fi droit ñëw de mais il faut que ñu am un capital national ci secteur bancaire bi parce que tey. ñaari réew rek suñu bëggoon saboté suñu économie saboté ko parce que ñoo yor suñu secteur bancaire yëpp donc yooyu concrètement concrètement quels sont sama projet industriel mën naa laa yokkal foofu waaw est-ce que da nga xalaat par rapport à certaines régions da ngay da ngay créer des des industries de de transformation à Ziguinchor par exemple. pour les ressources naturelles wala da ngay am euh, vraiment des visées par rapport à ces pôles économiques yooyu nga wax. non je l'ai dit tantôt nee naa la ñun dañoo théoriser les six pôles. qui recoupent les six parce que faire quatorze régions. te amu ci benn te amu ci benn bu viable. Mhm. c'est une mauvaise réforme. on a dit six pôles forts. avec transfert réel nag de compétences waxuma li ñuy def nii. dañ koy élargir y compris sur la la gestion des ressources naturelles. Mhm. y compris un transfert financier conséquent parce que loolu mooy problème de yëpp. Mhm. avec des autorités élues yu am doole parce que coow li am yëpp ci acte trois. bëggoon casser. yenn maire yi ñu jàppoon ne ñi fa nekk daf leen ni jox doole ba ñu war a mun a am ambition présidentielle mais on ne gouverne pas un pays comme ça. Mm-hmm. normalement su démocratie jaaroo ñoon dëgg dëgg dëgg. Mm-hmm. nit ñi léeg-léeg résultat bi ñuy def à partir d'une région bu ñu leen joxoon ñu def fa résultat boo xam ne fës na ba ñëpp gis ko. Mm-hmm. war na leen mun a gën a légitimité légitimer par rapport ak ambition yi ñuy am. soo defee loolu ba pare da ngay seet les capacités de chaque de chaque pôle. tey soo demee. Euh, euh, euh, pôle sud par exemple ce que j'appelle pôle sud muy la région naturelle de Casamance am na un potentiel forestier am na un potentiel en économie fluviale et maritime am na un potentiel en en en en horticulture am na un potentiel en agriculture parce qu'on fait l'arachide on fait le riz le problème mooy par exemple noix d'acajou yi nga xam ne indien dañu koy ñëw jël yóbbu moi je ne veux pas je veux qu'on les transforme au Sénégal je veux des unités industrielles mais loolu c'est pas le rôle de l'État ce que l'État peut faire c'est de réunir le secteur privé de voir ñan ñoo am des projets et des ambitions sérieuses de créer les conditions du financement l'accès au financement l'accompagnement et les conditions de formation ba pare protéger leen mooy li ma doon wax léegi doo ubbi sa économie mu ne fang ay APE ay yooyu yëpp du am protéger leen ba pare accorder leen une préférence par rapport ak toute autre velléité bu jógee ci biti léegi nag ñooñu suñu taxawalee des unités industrielles commencé liggéey leur premier objectif c'est le marché local ensuite le marché sous-régional parce que ñun suñu ambition dëgg dëgg dëgg parce que gars yi dañu foog da ngay jóg rek dem ci marché européen d'accord marché américain par exemple su ñu defalaatee li ñu defaloon muy AGOA nga xam ne may nañ ñu mayoon nañu lu mat presque 700 produits ne mun ngeen leen andi duñ leen laaj droit de douane leen def ay quota tout ce qu'on vous de remplir les normes réew bu buggee dimbale réew mu réew mu am doole bu buggee dimbale réew mu ndóol noonu lay def mhm. mais doo def comme France ni ñuy def mhm. mais léegi noo xalaata jële ko léegi nag jële ko dans les régions produit yooyu pour pour indi ñu koy transformer wala à la limite lu mel ni port euh, est-ce que chemin de fer non non voilà est-ce que chemin de fer nga les routes a matière d'infrastructure c'est les chemins de fer justement parce que le premier et le meilleur instrument donc yow terre bi terre bi doo ko def da koy remplacer ak chemin de fer. non mais terre terre bi mënoon nañ ci régler Dakar Bamako. régler ci axe Dakar euh, bu dem ba Saint-Louis avec toutes les gares. régler ci dessert Touba. créer ci buy dem ba Casamance te dinañu dese weccet terre benn terre boobu nga ñëw def ko ci ci espace bu gàtt boobu donc ñun on a parlé d'un plan directeur euh, des chemins de fer à travers tout le Sénégal c'est déjà tracé parce que mooy le moyen. le plus efficace pour le transport des hommes et des marchandises en même mhm. temps nga mun ci transporter ay capacité yu bëri. mu taxaw dëkk ak dëkk nit ñi wàcce ñiy yéegal ñiy yéegal ñiy wàcce. Ousmane loolu mooy priorité important il a beaucoup de personnes qui vous ont interpellé sur l'éducation nga continuer foofu foogee daanale pour nga aborder aussi la question de l'éducation avec les revendications des enseignants ak tamit la ah, situation de notre euh, de de l'école sénégalaise. pour éducation balaa muy démarrer. dafa am lu ñuy wax le décret éducatif et qui définit le type d'homme bi nga xamante ni moom la système éducatif de produire bul bul bul la personne jeexalee son cursus scolaire mhm. tey Sonko lan mooy sa projet éducatif lan mooy ban système éducatif ngay ñëw mettre en place parce que le décret 79 165 depuis Senghor la après gars nañ indi nañ le volontariat indi ay ay ay ay les professeurs contractuels nañ les les double flux indi nañ pas mal de réformes mais dafa mais léegi boo ñëwee lan ngeen mettre en place ak ban type d'homme la ce système éducatif di produire au terme de son cursus éducation ñett la c'est l'infrastructurel c'est c'est le social te li koy firndeel mooy social bi chaque année dinañ perdre cinq mois ci grève professeurs yi dinañu am mhm. jeune bi ñu dóor bal parce que mu ngi réclamé pour sam et cetera et cetera loolu illustration la le pédagogique problème bu rëy rëy la parce que suñu système éducatif dafa dafa péché ci deux parties bu ci njëkk alors euh, ouais. Ousmane on me signale que on a juste quelques problèmes de son avec votre micro le temps de revenir un peu sur euh, l'internet et permettre à l'équipe de s'en occuper mhm. euh, ñu ñëw ci il euh, y a beaucoup de questions hein bonsoir monsieur Sonko ma question est, est sur je pense euh, comment comptez lever l'IDH avec notre taux d'endettement et le déficit budgétaire Quel est votre plan pour nous libérer du dictat de nos bailleurs sur le plan de la politique économique Bon, ça, il a déjà répondu sur mhm. beaucoup, mal, pas mal Le ministre, bon, ça, il est revenu sur ça également. Le nombre de ministres va être euh, réduit. Bon, combattre la corruption. la question de la bonne gouvernance ça c'est très important c'est un cheval euh, de bataille alors yaa ngi woon ci éducation bi ay ca waaw euh, euh, je disais que domaine pédagogique je j'espère qu'ils m'ont déggoon nañu au moins li ma introduire ci bi domaine domaine pédagogique bi pour man am nañu deux ou trois problèmes yoo xam ne fa la ñu lajj foofu la commencé d'abord modèle bi ñu choisir et c'était une volonté de Senghor peut-être parce que lui il était littéraire mooy nañu produire des littéraires or fi ñu toll nii il faut ñu dem ci enseignement technique scientifique euh, teel a orienter les jeunes dama dem Suisse temps yële j'ai été par ñi yor système éducatif suisse bi parce que man fu ma dem rek dinaa def rencontre politique rencontre avec des soit ma dem visiter ay industrie wala ma dem visiter njàng meeg yooyu le meilleur modèle au monde actuellement nee nañ c'est le modèle suisse dafa di modèle boo xam ne dañuy teel a filtrer gosses yi boo demee ba BFM xam nañu ku nekk luy capacité ñu war a mën a continuer ñu continuer ñi ñu orienté leen très tôt vers des filières de formation ainsi de suite le jeune suisse à 18 ans 20 ans mun na commencer liggéey ku ci bëgg a continuer njàngam mu continuer njàngam mais ñun dañuy jël ay filières généraliste nit jàng pendant 20 ans 25 soo ko tegee ci position travail ne ko léegi lan nga mën exactement mu ne la bon xanaa ñu formé waat ma léegi da ngay gis ku jàng ba am maîtrise dem fayaat école formation pour jàngaat et école de formation yi la ñuy former banque assurance transit commerce international ainsi de suite il faut que ñu réorganiser loolu parce que jeune ne dis pas que du am filière littéraire mais il faut qu'on oriente le maximum de jeunes vers des formations professionnelles et diplômantes loolu bokk na ci problème ñaari ñaareel bi loolu nag lu ñuy mettre en réflexion la bu xóot mooy ñu ngi jàng ci langue yoo xam ne du suñu langue daf ñuy accuser loo beaucoup de retard parce que ki jàng ci joo ki ki jàng wax ci joolaa wala ci saraxole wala ci olof wala ci séeréer ba am âge six ans nga yóbbu ko école mu war a commencé waat nag jàng beneen langue te munoon na compter déjà ci langue yooyu munoon na soo ko ne soo ko ne lii la mu ne la fas la soo ko ne li kii mu war koo jàng ci langue yooyu le temps que muy adapté wu ba am benn niveau bi moom moroom coréen bi nga xam ne ñu ngi koy alphabétiser ci coréen moroom rwandais bi nga xam ne léegi ci rwandais lañ koy euh, euh, alphabétiser wala éthiopien bi nga xam ne ci éthiopien bi kooku raw na ko parce que kooku commencé na mhm. calculer loolu bokk na ci suñu problème il faut que ñu opter pour nos langues nationales ba pare opter pour une langue internationale de communication la réflexion c'est que est-ce que boobu français la ba léegi parce que soo génnee fii comme les autres pays français anglais boo xam ne il faut il ñu truc ci comme langue nag doog a ñëw parce que dañoo juum ci priorité xam nga tey suñu la nee Sénégal am na encore lu mat ay 5000 abri provisoire fu amul fu xale yi di jàng ci ay sàkket nga xam ne su tawee yenn zones yi hivernage yi gaaw a ñëw nga gis ay salle de classe yoo xam ne 90 gosses 100 gosses ñenn ñi ci suuf la ñuy toog nga bëgg ne yow yaa ngi defar ay réalisation parce que yaa ngi tabax ay immeuble à Diamniadio def nga train bu jar 1400 milliards loolu problème la on se trompe de c'est à ces trois niveaux la ñu def ñun suñu. et les revendications mais c'est des revendications légitimes je l'ai dit et je ne le dis pas maintenant parce que bi may nekk inspecteur des impôts enseignants yëpp a ngi may dégg defal naa leen ay conférences en tant que secrétaire général du syndicat des impôts et j'ai toujours déploré les injustices un enseignant de hiérarchie A un autre fonctionnaire du ministère des finances de hiérarchie A mun na ko fay ñaari yoon loolu du yoon donc néew ñëpp dañuy tolloo des niveau raisonnables parce que dafa métti parce que amul métier bu gën a noble enseignant ak ak médecin cim réew amul ku gën a noble kii dugal xam-xam ci bopp xale ak kii faj boo feebaree man j'ai j'ai fait quinze ans aux impôts j'ai mis des milliards dans les caisses de l'État amul du banque du assurance du cimenterie lu ne vérifié naa ko fii mais je n'ai jamais considéré que maa ëpp valeur enseignant bi nekk fële fongale mi di former koo xam ne peut-être c'est le futur président de la République mm-hmm. ñooñu dañ leen war a jox seen gëdd. Mm-hmm. te li ñuy laaj bëriwul pratiquement on est la fin de l'émission sur les questions de bonne gouvernance mm-hmm. parce que il nous reste pratiquement cinq à dix minutes. Euh, les questions de bonne gouvernance parce que loolu dafa nekk épine dorsale boo xam ne revendication bu sénégalais yi di wax la à l'heure actuelle am nga loo fi su soulever lu bëree bari léegi est-ce que yow boo ñëwee ci nguur gi da en question en les contrats un en matière am na ku la laaj fii ne da ngay supprimer CREI wala déet ak nga laalaale ci li nga xam ne tamit mooy comment rendre la justice indépendante. Euh, d'abord gis nga bonne gouvernance question de volonté politique la. c'est-à-dire ah oui. on a tous les instruments gis nga li am ci instrument France sax defe naa amu ko ñun am nañu nag am nañu IGE. Hmm. am nañu Cour des comptes am ñu CENTIF am nañu GIABA. am nañu. Euh, IGF euh, CREI. CREI am nañu euh, les IGF ainsi de suite waaw loolu foo ko gis ci àdduna te ñooñu ñëpp ñi ngi def seen i rapport rapport yi jàpp ñoom Cheikh Omarou Anne ñoom Kanteeg ñoom Siré Dia ak nangam nangam ñi ngi fi waa ji teg ci tànkam. Mhm. kon foofu la problème bi nekk moo tax ñun dañu ne du problème mu institution. d' accord institution il faut les réformer li ñu wax ñun mooy dinañ leen centraliser. mu doon benn corps bu rëy rëy rëy buy superviser lépp lu jëm ci ci ci gestion publique mais de du am benn lien ak présidence de la république parce que tey soo jëlee euh, inspection générale d'État c'est lié à la présidence de la république moo koy jox budget ñenn ñi moom leen moom moo leen di tànnal boppam su ñuy def seen seen programme moom moo koy valider ñu paree seen statut dafa ne le président de la république est le destinataire unique du rapport mmh. soo jëlee cour des comptes même la am ak chancellerie la justice loolu problème la moo tax ñun dañu ne dañuy couper lien dañuy doon ay corps indépendant autonome budgétairement euh, administrativement mun a définir seen programme bu ñu paree seen rapport suñ ko joxee président de la République à titre d'information la mais am nañu possibilité ñoom saisir directement la procureur mais mieux su procureur di yox yoxi selon un sur un délai raisonnable six mois par exemple deful dara ci dossier may nañ leen ñoom ñu mun a substituer wu pour saisir directement le juge pour que dossier yi ñu régle ko ñun loolu lañu ñu ci texte bi parce que du problème du problème mu euh, est-ce que am na wala amul rapport yaa ngi fi fees mm. del ñaareel bi maintenant est-ce que je vais supprimer la CREI man mosuma gëm CREI et je l'ai dit publiquement depuis le début au risque d'être impopulaire 2012 j'étais même pas encore en politique bi ñu nee CREI dama def benn débat ak Moubarak Lo Sud FM mm-hmm. Assou Mbène moo ko organisé woon Soumbène Kane Aïssatou waaw maa ngi yor enregistrement ba léegi ma ne ko li ngeen di def nii d'abord ça ne répond pas à aux normes d'une bonne justice parce que inversion de la charge de la preuve la c'est une justice inquisitoire mm-hmm. te suñ ko appliqué woon dëgg dëgg dëgg Macky Sall moo waroon njëkk dem répondre parce que mënul justifier diggante 2002 ak 2008 comment il a pu se constituer ce patrimoine est-ce que deuxièmement xalaat na juger juger Macky Sall je termine je termine waaw dinaa ko terminer deuxièmement deuxièmement je considère que am nañu des instruments pour respecter li ñu jàngaloon ñun ci droit depuis première année la justice doit être accusatoire mooy l'excellent travail que les corps de contrôle font donc man soow moon et j'avais dit que c'était politique et l'histoire m'a donné raison fan lañu toll ci CREI yi alors mais ñoom def nañ ko forcé ñun li ñu gis mooy CREI yi Euh, man xalaat naa ni il faut ñu réformer ko. mooy appel droit d'appel il faut mu am ci ak yu mel noonu mais bu leen yàlla defee ñoom ñu daanu. il faut que ñoom ñu njëkk fi ñu jaarale nit ñi ñu jaar fa. ah bon Macky Sall aussi même mais ça c'est une justice revanchable. non non non c'est pas une justice revanchable. non non non c'est la reddition non non c'est pas une justice revanchable. c'est-à-dire. dinañu réformer CREI ba mu mel ni mu war a mel. Mhm. mais ñoom dinañ fa jaar ñi nga xam ne. rempli nañu charte yi. à par le chef de l'État je veux uh-huh. xam nga léeg-léeg dañ ma naan bul wax loolu parce que da da ngay tiital gars yi soo leen tiitalee ils vont s'agripper seen bakkan dinañ ko jaral du question tiital kenn. Uh-huh. ku deful dara amoo problème ak kenn. ñun dañu ne un chef d'État. tu as l'immunité juridictionnelle. Uh-huh. tu n'es justiciable que pour haute trahison. sur les faits. concernant ton mandat sa mandat li jiitu sa mandat ak li tegu sa mandat amul benn immunité bu ko couvrir loolu il faut que mu leer un et ci biir mandat boobu c'est pas une immunité totale un chef de l'État bu génnoon tey xool la neexoo ko mu jël fetal tiire la mais kooku c'est pas couvert par une immunité <laughs> pour ñun que nous sommes euh, euh, pour ñun corruption pour pour mu leer lenn la il faut que ñuy sanctionner sans sans sans sans état d'âme sans retenue parce que le corrompu yow soo nekkee inspecteur des impôts dem vérifier plus ñu ne la 100 millions ngi nii nga ne duma ko laal seet naa ci sama borom takk naa sama biir wala léeg-léeg lii keneen yow ñu ne ko 100 millions ngi nii mu jël moom dafa choisir la facilité dafa choisir bakkanam bi mu koy lekk mu neex yéegoo boole lañ ko pourquoi ko suñ ko jàppee ñu naan masahaak borom njaboot laag ku nekk di woote di intervenir loolu moo war a jeex ci Sénégal parce que dërëm bu nekk dërëmu sénégalais yi la maire bi toog fii di jaay gerte ba ngoon mu génn li am mille francs dugg ci boutique bi jënd su jëndee almet ñu ne ko fe am na 18 pour cent TVA su jëndee diwli ñu ne ko am na 18 pour cent TVA impôt boobu nit ñëw détourné ko est-ce que kooku moo ci gënoon a yelloo euh, euh, mère de famille boobu donc il n'y pas de secret gis nga la vertu n'est pas spontanée dëkku discipline am na fa organisation am na xam nga ndax lan parce que tubaab bi xam na ni su ma waree xëy 8 heures xëy 10 heures ñu dagg ko sama salaire day ñëw 8 heures te xam na ni ils vont appliquer la wa mais fii lool laal ku nekk jóg wax. ñu ne Mastaxa Mastaxa Mastaxa. en parlant de corruption de transparence Ousmane. am na benn dossier bu ñu soulever ba kon bu touché un certain homme d'affaires bu ñuy wax Tahirou Sarr ak une maison benn dossier bu ñu bu dem OFNAC waaw bu dem OFNAC ba ñu entendre ce certain Tahirou Sarr une famille à à Dangou ba ñu nam am benn entreprise bu tudd Metralex xaw ma lan loolu dañ bëgg quand nga leeral waxuñu nga non non xoolal Ousmane <laughs> ngay tontu kenn loolu dossier boobu nu mu demee bul tontu kenn dañu bëgg mu leer ko ak ak may tontu nag man xam nga man <laughs> def nee na léeg-léeg ñu ne ma non bul tontu non non non xam nga li tax tontu ah, bi di am solo ma ma ma rek milliards boo soulevé woon jëmal ko ci nit tey ji am na ku def émission ne bu ñu xootalee dossier boobu enquête yow war nañ la entendre parce que mele nga ci parce que am nga structure bu ci taq leeralal sénégalais yi lan moo ci xew. du noonu mu waay waay xam nga lamay may leeral rek du ma tontu waaye li tax tont bi di am solo léeg-léeg mooy réew mi dafa am ñoo xam ne c'est des maîtres chanteurs jël réew mi en otage nag. Mm-hmm. jàpp ni parce que yor nañu seen micro wala seen bic mun nañ jël réew mi en otage te ñu ngi ci scandale bu ne ñun ñu ngi yor suñuy lu dul jeex ci foncier bi ci leneen ak leneen ñooñu. ay dañ leen di envoyé c'est des mercenaires mais dossier bi li ci am lu simple la dossier bi man maa toog am samay information te dossier boobu benn rek la ci dossier yi de gis nga li ñuy wax les dossiers des acquiescements maa ngi ci yor lu ma dix benn entreprise de détournement de deniers publics à grande échelle la bi ñu jotee bi ma jotee dossier bi ma commencé def samay recherche jël sama avocat ne ko demal conservation foncière nga wutal ma état de droit réel ak copie ñu def suñuy recherche ba gis ni dossier bi luubal bu garaaw a ci ne dañoo dem nangu suufu benn famille jaarale ko ci ay faux fausse décision de justice daat koy wëlbatiku yónni kooku ñuy wax Tayru Sarr mu dem waxtaan ak benn pàcc ci famille bi ne leen léegi yéen dossier bi yéen ciy daw depuis des années mënu leen ci jot man nag mun naa leen jox deux milliards ak lu ci tegu ngeen jox ma ngeen gay ngeen ngeen ngeen defal ma acquiescement bi ñu defee loolu ba noppi ñoo ñu def ko mu am beneen pàcc ci fam bi ñu yéeguloon affaire bi ñooñu ñoo jóg def opposition dossier bi dem tribunal tribunal kase acquiescement bi parce que en matière immobilière mënul am acquiescement justement en matière de de d'indemnisation pour cause d'utilité munul am mënoo ñëw di di intervenir intermédiaire mënu cee am décision de justice ñëw ñu cassé loolu kon ñoom amatuñu base légale mais jël nañu xaalis jox une partie de la famille ñoom ñu def seen combine bi ñu ko defaree bi mu amee loolu ba pare dafa dem ñoom waa domaine Mamour Diallo ne CCOD daje na xool nañ dossier bi Tahirou Sarr ak entreprise am ñaari entreprise la am na droit indemnisation 94 milliards. Sofico waaw Sofico ak beneen bu ñuy wax IFO. xam nga loolu triant weesuwul loolu ab famille doon daw ci àqam ñoom administration ñu toog ne duñu leen ko jox. dem yónni seen nit. mais lan nga ci yow xaaral ma terminer rek maa ngi ciy ñëw soo ma laaj rek nga bàyyi ma terminer rek nga yónni sa nit mu dem def nax famille bi la le lendemain nga ne ko yow jox nga leen 2 milliards waaye ñun état nañ la jox 94 milliards. bi ma gisee dossier bi ma xam ne lii mbuxum la ma jël sama bi bind. moo tax suñ naan war nañoo déglu Sonko man maa bind procureur la république lettre ngi nii yem ma ci ma bind IGE bind nag daal di def le détail du dossier mi ngi nii. avec les pièces justificatives ne leen lii c'est un cas grave de corruption maa ngi ko def xam nga kañ ci weeru koor ga mois de mars ou avril ba tey ji procureur woowu ma ba tey ji IGE woowu ma ñaari weer ci gannaaw waa OFNAC woo ma ma dem fa ñu ne ma jot nañ affaire bi mais le dossier c'est très grave nangam nangam may leen dinaa waxtaan ak yéen dëgg man gëw ma sax ni yéen di ngeen traité dossier bi parce que it naa fi il ans témoigner ci dossier wu Petro-Tim bi affaire Alioune sal ba léegi fa la jaar ne mes mais nag pour la postérité j'ai posé des actes et j'ai signé en tant que député à l'Assemblée nationale et président de parti politique man leen signé naa bi ñu kiiyee ñu def ñu def ma def sama déposition ñu def PV bi lire ko relire ko ma signé ñëw toog di xaar évolution yi boobu ba léegi maa ngi déglu donc man maa bëgg procureur ubbi dossier bi xam naa ni campagne bi ñuy ñu nekk moo tax ñu yónni ay mercenaires ñuy wax su ma nekkoon en pleine campagne nekk maatam procureur ne dossier bi ubbi naa ko damay taal sa moto ñëwaat léegi nag li wax du dëgg man aw ma cabinet bu tuddu Mercalex aw ma benn cabinet bu tudd Mercalex je ne suis pas actionnaire en Mercalex. mais da nga nga euh, cabinet gis nga waaw xaaral ma terminé gis nga ñun suñu cabinet. Mhm. tuddul Mercalex. suñu cabinet mi ngi tudd. Euh, dama sonn waay cabinet bi nu mu sax <laughs> ah. dangaa tiit parce que ñëw na. non non non du loolu du loolu du loolu euh, euh, Atlas la tudd Atlas Group. suñu cabinet mi ngi tudd Atlas Group. benn cabinet laa yor muy Atlas Group. Mhm. bi ma dépo bi may déposé li yàlla mi ma tiim billaahi xaw ma famille bi gisuma famille bi. j'ai déposé en tant que député à l'Assemblée nationale et président de PASTEF ma dem saisir la la justice saisir les corps de contrôle quatre mois plus tard laa toog ay membre famille bi ñëw gis ma ne ma dañ laa bëgg a gis parce que dégg nañ li nga def ci dossier bi te looloo tax dossier bi taxaw su doon loolu gars yi saax saax saaxe nañ ñu bu yàgg mu recevoir leen ils sont venus on a discuté ñu ne ma comme yow da nga yor cabinet dañ laa bëgg a dénk dossier bi nga défendre ko gis nga loolu am naa ci sañ-sañ su ma sañoo su ma neexee ma jël dossier bi je n'ai violé aucune loi de sa pays ma leen d'accord bàyyi leen ma réfléchir bi ma demee ba réfléchir j'ai dit jarul may jël dossier bi parce que posé naa si des actes ci beneen fànn ci laa leen ni recommander leen keneen dem leen ci moom mu gérer dossier bi parce que damay bañ ëllëg ñu ne moo nekk fii nekk fële donc amul benn cabinet boo xam ne man bokk naa ci bu nekk ci dossier bi loolu ku ko wax waxul dëgg te du ko mës a prouver léegi nag ñun lu ñuy ñaan dossier bi ak yeneen dossier te dañaa ci génn yeneen yi ci tegu dañoo bëgg procureur diligence bi mu defoon ci dossier xalifa sal ci un milliard ñaata la huit cent bii 94 milliards la dañoo bëgg procureur def la même diligence léegi ñu xam fu mbir mi nekk. xam na am na ku ne woon day porter plainte ba léegi gisuñu plainte. alors euh, on a aussi le plaisir d'accueillir sur ce mhm. plateau El Hadj Ibrahima Ndiaye alors El euh, dafa amoon ay question yoo bëggoon a poser ah. d'abord damay ñaanal Sénégalais yëpp jàmm. Mhm. di ñaanal askan bi yëpp jàmm. li ñu jëkk ñaan yàlla mooy politiciens yi. Eh, ñu ñaanal ñu ñu jàppale ñu. élection yi ñëw ñu am jàmm et que tout se passe dans les règles de l'art ñun ñëpp ay mbokk lañu nous sommes des sénégalais. di leen ñaan yéen journalistes yi. que les choses se passent dans les règles de l'art ngeen jàppale sénégalais yi parce que ñun am na leneen lu ñuy tal lu dul euh, giiroo ŋaaro et ce qui est important pour nous c'est que chaque citoyen fasse euh, son travail normalement di leen ñaan aussi euh, ñu dem dugg ci élection yi ci jàmm génn ci ci jàmm et que le meilleur gagne. Euh, di ñaanal sénégalais yëpp jàmm. Ah. yéen nag politiciens yi saa yi ngeen ñëwee fii. ci télévision yi commencé di wax ne su ma nekkee président lii su ma nekkee président la wax rek wax rek wax rek yaakaar naa nag xëy na suñu leen falee président xanaa nag da ngeen di jàppale xëy na xanaa askan wi jàppale. secteur euh, privé bi bi jàppale euh, jàppale les les télévisions privées parce que mu nekk nii. il faut que les choses avancent. mais mais doléance ngay def nii. wa non au candidat c'est-à-dire que euh, li am mooy ñu bëri jaar nañ fi ñu bëri jaar nañ fii. et nous on fait partie aussi des des. Des, des, des, chaînes et des trucs qui ont amené les gens au pouvoir, qui ont aidé. Et qui respectent aussi l'équilibre dans, les formes. Euh, lenen respectent l'équilibre yàlla may nañu ñun ñëpp ñoo bokk Sénégal y a des comportements yoo xam ne war nañ ko war nañ ci génn saagante yeeg euh, defante yenn yi ça n'a pas de sens bon euh, li ci des mooy vraiment toll nañu foo xam ne il nous reste que quelques mois pour les élections yéen a war a rassurer peuple bi yéen a war a dimbali peuple bi pour mu am assurance que ne vraiment tout va se passer dans les règles de jeu di leen ñaanal yàlla jàmm yéen ñëpp bon euh, euh, loolu rek laa amoon li may wax bon li ci des euh, lépp jàll ci yar ak teraanga parce que ñun ñëpp ay mag lañu te aussi nous avons investi de l'argent dans ce pays-là nous avons travaillé nous nous sommes battus pour arriver là où nous sommes aujourd'hui donc euh, bon euh, loolu lu am solo la euh, li ci des mooy chef d'état bu ñëw am na lu mu liggéey am na lu mu def c'est vrai que euh, ku ci nekk jaar na fii liggéey na Sénégal xam nañ ne am na ñuy liggéey am na ñoo xam ne aussi liggéeyuñu mais li wérte wóor mooy nanu fexe ba nun li ñu soxla ci Sénégal ñu am ko la tranquillité la quiétude. la stabilité waaw alors voilà. très bien euh, monsieur élage Hadj Ndiaye alors euh, El Hadj euh, Sonko euh, dernier mot bi lan lay doon pour en direction des élections yéen a ngi nekk ci parrainage bi déjà ya a beaucoup de problèmes au niveau de parrainage bi maa ngi ci dégg ñu ci Calais. yow réussir nga prouesse li ñuy wax sauter le <laughs> premier obstacle bi c'était le parrainage c'était pas évident pour tout le monde donc coow li bari na ci trop. et on va vers maintenant le dépôt des candidatures mooy deuxième. étape bi ñu war a dem ci élection présidentielle yi. man appréhension nga ci am ak ban message nga war a joxe bu rassurant par rapport ak Sénégalais yi et puis liñ jëm ci élection yi mu jaar ci yoon ñu war a bokk bokk ku gagné ñu xam ne yaa gagné. waa di remercier déjà le directeur général euh, ci discours bi def naa waxu sage la wax. Hmm. Euh, waxu kilifa la wax. boolewaale ci quelque doléances personnelles. <laughs> Euh, ma rassuré ko ni ñun. pourquoi ñu woo suñu bopp suñu premier dàkkantal di patriote ñun ci bépp fànn nag ñun leen nationaux lañu gëm dañoo gëm ni am réew mënul développer sans une bourgeoisie nationale forte dans tous les secteurs moo tax côté boobu defe naa duñ ci am problème ak kenn ku xool suñuy intervention xool suñuy discours ci loolu la élection yi nag je crois que euh, nit ñi li ma leen di wax toujours euh, mbir moom dañ koy ñeme rek wala ñu bañ koo ñeme parce que kuy wax ngir yàlla kese rek xam ni élection yi ñu jëm c'est lourd de danger waaye kuy wax ngir yàlla rek di nga xam ni benn acteur moo waral loolu yépp mooy Macky Sall ak ñi mu àndal parce que moo conduire un processus électoral seul ce qui est inédit consulté wul kenn waxula kenn su ko neexee mu imposer parrainage su ko neexee modifier constitution dugal ci lu ko neex parce que tel candidat warul bokk ou tel candidat warul bokk tey ñi ngi wax parrainage bi kenn xamul dans quelles conditions le conseil constitutionnel def contrôle ñii ñi ngi naan am na deux am na leneen ak leneen loolu ci responsabilité am la man dama bëgg suñuy poser débat yi fii ku tooñ ñu ne jàpp ci loxoom ne ko sëñ bi yaa tooñ parce que noonu la ñuy avancer mais su dee dañoo bëgg seetaan rek wala ñu ne dañuy équidistant ba mbir mi mun a ta war a tàkk ñu ne on renvoie tout le monde dos à loolu tam du justice tey qu'on me dise quelle est la responsabilité par rapport ak risque yi am ci tribune est-ce que opposition ñoo téye carte électeur u citoyen est-ce que opposition ñoo kidnappé fichier électoral bi est-ce que opposition ñoo bañ a bi est-ce que opposition ñoo bëgg a nekk juge et partie en organisant eux-mêmes l'élection est-ce que opposition ñoo instaurer le parrainage sans concertation est-ce que opposition ñoo modifier la constitution et le code électoral pour éliminer Khalifa Karima keneen ak keneen loolu yëpp benn nit moo ko def kon dafa jaadu ñu xoolante ci biir bët c'est pas parce que moo yor réew mi kenn du ko wax lu am c'est lui le problème il est le seul problème la ca des nag ñun dañu ne ñun jàmm la ñu xam fii réew mi réewum jàmm la te gëm naa ni citoyen si seen bopp du ñu nangu ku taal réew mi loolu moom bu ci kenn nax boppam mais su dee citoyen yi namm nañu changement parce que souvent dañ naan opposition moo seetaan mais opposition lan la mënoon def opposition bi génn na manifester na gaze nañ ko euh, et cetera xeex nañu assemblée man su summi naa fa costume sax dóorante ak lu ne def nañ ko <laughs> mais dafa am yenn yoo xam ne pour mu am il faut que rapport de force bi am looloo xewoon en 23 euh, juin 2012 2011 te rapport de force nag c'est pas seulement les acteurs politiques rapport de force fu mu am ci àdduna gis nga li xew actuellement France gilet jaune amul sax politique c'est un mouvement spontané révolution arabe yi c'était pas les acteurs politiques dafa am loo xam ne su dee citoyens yi dem nañu ba gis ni mbir mi toll na fii te lii du yoon bis bu un million de sénégalais génnee ne dañoo bëgg nga joxe carte d'électeur yi te ku jot carte électeur am dafa am droit voter munoo jox nit ba ba pare bind ci gannaaw ne il n'a pas le droit de voter au nom de quoi ça c'est des questions citoyennes ñun nag li ñu mën ñu ngi ko ciy def mais man duma ma jël kalachnikov dem taxaw buntu ministère de l'intérieur ne tey nga génne affaire yi wala ma tiire donc loolu jàmm pour mu am il faut que nee nañu ci diine gi ñu bokk ñun ki fi yàlla yónni dafa ne sa sa mbokk na nga ko jàppale bu tooñee ak buñ ko tooñee gars yi ne ko bu tooñee buñ ko tooñee xam nañ ni ñuy def nañ ko xeexle waaye bu tooñee nu ñuy def ne da ngay jàpp ci loxoom ne ko sëñ bi yaa tooñ kilifa yépp suñu taxawoon déglu lii ñu wax nii ba pare ñu ne ma Macky Sall lii nga nekkee du yoon je crois que loolu dina doon lu war a mën a apaiser situation bi aussi su loolu amul les gens chacun avec ses moyens dinañu dinañu essayer résister dinañu mhm. jàmmarloo te loolu mooy andi tension yi kon ñun daal ñu ngi ñaan jàmm ñu nit ci Sénégal parce que loolu mooy première matière première bu gën a précieux ci Sénégal du or du pétrole du gaz jàmm la yàlla na yàlla def fii jàmm. waaye it na parti yëpp doxal jàmm moo ëpp solo. absolument mhm. alors euh, xanaa ma tàggatoog sama gan ah, mhm. parce que <laughs> fi mu nekk nii on a fait pratiquement deux heures plus de débat. waaw ah ouais. euh, qui impose ça euh, vraiment Mout Bane. ma man foogoon naa ne doo ñëw tey sax ak wax ji nga wax yëpp nu mu rëyee. waaw <laughs> foogoon naa doo yegg si sax tey parce que yow dafa laa foogoon naa tey moom dig nga. <laughs> waaw waaw gars yi de joxe nañu joxe nañu instruction ni nañ ma jël si. jël si <laughs> donc maa ngi leen déglu. ah dégg nga lay def naa duñ ci yegg na quand même. ah on va pas merci beaucoup Babacar. merci duñ ci yegg Sénégal li may wax la réewu jàmm la ah. nous on va continuer après le plateau maa ngi yow ñooy def face face élage euh, waroo quitter euh, mais de remercier Sonko nga souhaiter sa bonne heureuse année aux Sénégalais. waaw di naan yàlla yàlla defal ñëpp 2019 gën téeméeri yoon at yi ñu mës a dund. Mm-hmm. jàmm santé prospérité. vraiment euh, ndaw ñi am liggéey jigéen ñi am jëkkër 2STV euh, <laughs> yokk bu baax a baax jël concours internationaux yi ak yeneen ak yeneen vraiment ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm ñëpp réussite mhm. parce que loolu la ñu looloo ñu dugal coob ci yéene sénégal yi lu baax yéene progrès te jàpp naa ni mën na nekk parce que yàlla moom ay mbiram euh, mën mat na ñëpp mate na ñëpp ba ba des daal ñu ngi ñaanal ñëpp vraiment mhm. une excellente une excellente année 2019 yal na ko yàlla allah lépp nekk ci jàmm année 2019 euh, boo xam ne mbégte lay jur di remercier bu baax a baax les téléspectateurs yi parce que ñu ngi may wax Facebook maa ngi koy xool dafa explosé en terme de personnes yu ko doon suivre parce que dafa bari woon bari bari bari bari c'est alors je me retourne vers Moustapha pour ñu xool euh, la situation je crois que euh, on a battu le le record a été battu. 4000 personnes ouais. on a eu des questions qui n'ont pas été posées aussi. waaw te ñuy xamal suñu mbokki téléspectateurs que mënuñu donc di jëm des fois am na ay questions yoo xam ne sax même l'invité a déjà répondu. A déjà répondu. donc voilà. Euh, voilà. donc euh, l'essentiel a été fait. Mm-hmm. Euh, merci beaucoup pour l'excellent travail parce que nii lañ koy jàppee ci biir 2STV indi ay innovation à chaque fois pour permettre au Sénégalais ñu réapproprier wu télévision. réapproprié wu ci ban moo di bokk ci émission bi di ci dugg di laaj di wax seen xalaat di wax seen i point de vue c'est important mais lépp nag ñu bëgg mu nekk ci yiw parce que li ñuy wax internet baax na trop mais nañ koy jariñoo ci anam boo xam ne yiw la da day jariñ askan bi am nga droit far fu la neex am nga droit ànd ak ku la neex mais ànd ak nit warul tax nga saaga nit ànd ak nit warul tax nga saaga nit mieux vaut ngeen poser question donc tontu loolu moo ci am solo 31 décembre 2011 seul le président Macky Sall était sur notre plateau 31 décembre 2011 seul le président Macky Sall était là sur notre plateau fa la dem campagne yàlla may ko lu muy may nous on a choisi également comme ñu ngi jëm ci élection présidentielle au terme du man sax ñoo ko ñëpp d'accord nañ ne Ousmane Sonko a été l'homme de l'année parce que innovation yi son discours ak loolu la am ci élection yi nag moom ak ay nitam ak sénégalais yi ak kàddoom ñoo koy jox mais ñun dañuy def un travail professionnel d'équilibre alors euh, pour euh, permettre à nos invités euh, de quitter le plateau tranquillement et rejoindre leur famille Et je vous souhaite vraiment de passer Merci. un bon réveillon et puis euh, souhaiter aussi bonne et heureuse année, Boudban. Merci à Le premier, je vais t'appeler pour voir si tu es toujours là. <laughs> Babacar également. Merci. Alors, régi si la réaction de Moustapha Niasse sur le discours de Macky Sall est prête, ñu diffuser ko permettre suñu invité ñu dem après man ma continuer ak El Hadj Ibrahima Ndiaye parce que war nañu waxtaanee ci télé lu bare bari. Mm. le temps que ñëw leen ci deuxième partie. bi nga xam ne mooy parti bu soft bi ñu permettre à nos téléspectateurs à nos animateurs de souhaiter les meilleurs vœux aux téléspectateurs de votre chaîne de télévision la 2S TV alors on regarde la réaction de Moustapha Niasse après le discours de Macky Sall et on revient sur ce plateau. Moi, je suis sûr que je d'être le seul qu'il ait ce soir pu convaincre. D'abord, la précision des chiffres et des références de base qui fonde et porte l'exposé qui a été fait à la nation sénégalaise sur ce qui devait être fait, sur ce qui a été fait et sur ce qui reste à faire. C'est extrêmement important de suivre ce genre d'exposé qui prennent la forme d'un message à la nation pour rassurer et convaincre, préciser, mesurer évaluer, indiquer et indiquer avec précision les raisons qui poussent à poursuivre l'effort qui est en cours dans l'unité nationale, dans la concorde, dans la concertation, lorsque la loi prévoit un certain nombre de, un certain nombre de dispositions pratiques, qu'un candidat à la candidature qui ne remplit pas ces conditions-là, lorsque son dossier est rejeté, vous croyez que c'est antidémocratique c'est l'application stricte la loi et ses dispositions internes. Lorsque la loi dit que pour qu'une candidature soit validée à ce niveau-là, parce que la validation, c'est après le contrôle des listes de parrainage, qu'un certain nombre de dispositions doivent être vérifiées sur les signatures, sur l'identité des parrains, sur les doublons, parce qu'il ne peut pas y avoir un parrain pour 20 candidats. on est parrain pour un candidat. Une fois que l'on a été identifié comme ayant parrainé une candidature, lorsque votre nom, votre prénom, votre date et lieu de naissance apparaissent de manière identitique y a doublon. À ce moment-là, on est écarté. Alors, ce que fait le Conseil constitutionnel, laissons-le continuer de le faire. C'est un organe juridictionnel qui a son indépendance, son autonomie, qui est composé et qui est animé par de hauts magistrats de la République de ce que le Sénégal appartient à tous les Sénégalais. Le Sénégal n'appartient pas à ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui et qui hier étaient à l'opposition. Le Sénégal appartient à chaque Sénégalais, chaque Sénégalaise, y compris les nouveaux-nés qui viennent de naître dans les hôpitaux à l'instant où je, je réponds à vos questions. Donc, le chef de l'État a lancé un appel à la paix, au comportement citoyen et civilisé, et surtout à la capacité de se surpasser et de se moo doon réagir noonu ci euh, discours bu président Macky Sall def un discours qui est euh, un discours bilan parce que euh, après ce discours il va aller mettre son mandat après ñu dem ci élection présidentielle yi février 24 février defe naa la ñuy voté le premier tour après premier tour bi euh, bu nekkee jàll na premier tour. Il nous doit un discours le 3 avril. Alors, mais nous, en attendant, on a le discours de notre patron, euh, notre PDG, euh, ki nga xam ne moo di El Hadj Ibrahima Ndiaye. Alors, lage Hadj, ça na nga def mbaa sonno Mais je vais bien. Tu vas très Je vais bien. Toujours en forme. Je ne suis plus PDG ici. Gars yi ñu ne gars yi tu gars yi ñu ne yow rek lañ gis ci euh, patron de presse boo xam ne. mais bu nekkee làmb dañ lay gis ngay defar câble caméra yeeg loolu lan la pourquoi. c'est ma nature et j'aime bien ce que je fais. J'ai pas envie de croiser les bras et de voir les gens, c'est mon ancien métier. Mhm. Donc euh, je suis toujours dedans. Alors euh, yaa ngi toujours euh, dedans may wax rek ne euh, ni ngi nekk ak yow ci télévision bi gis nañ beaucoup d'innovation ah am ci télé bi yow de loin nga koy seetaane léegi di gis. de loin parce que j'ai des gens yoo xam ne aujourd'hui ab de mes enfants bon comme vous le savez la télé même nous tous, c'est une affaire de famille. On est tous là. Bon, Mariam, c'est elle qui gère un peu le personnel, euh, les programmes. Abdul, c'est lui qui gère la décoration. Yep, je découvre en même temps que les téléspectateurs. Parce que c'est ce que je faisais depuis le début, de Madame Daoudi, Djel Aïsid, Djel Aï mais j'ai arrêté tout ça. Parce que des femmes, benen travail, benen boulot, qui ne me permet plus d'être tout le temps présent ici. bon Salah s'occupe de la production les les autres jeunes qui sont ici Papsi est venu nous retrouver et vraiment il y a eu un soulagement pour le temps et donc euh, aujourd'hui euh, la 2S euh, ce n'est plus El Hadj Ndiaye tout seul c'est c'est tout le monde c'est une c'est une famille c'est une famille c'est une famille y les agents et oui. tous les ouvriers les caméramans les techniciens tout le monde tout le monde tous, les techniciens tous, de surface tous, le monde déjà c'est déjà une famille alors ci loolu laa bëgg euh, ñu ñëw di waxtaan de nan nga gisee avec le recul les différentes télévisions qui naissent ak loolu ban jàngat nga ci def. bon il y a dix ans que j'ai dit que il y beaucoup de télévisions qui vont ouvrir. et mais il y a beaucoup qui vont disparaître. je me pour des raisons très simples parce que télévision du xaalis il y a pas d'argent il y a pas d'argent du tout parce que pour payer les salaires pour payer l'électricité euh, souvent on est arrivé à vendre même des terrains pour pouvoir payer les salaires, les salaires. des ouvriers c'est un problème de prestige ou c'est une question de passion. Euh, la plupart des chaînes de télé aujourd'hui qui, qui, qui, fonctionnent, les gens ont plongé dedans parce que sachant que peut-être euh, que c'est quelque chose qui marche ou bien, ils, ou, ou bien ils ont fait bien leurs calculs. J'avais posé la question une fois à quelqu'un, à Tangian, un journal se vend à 100 francs. Il fait plus de 8 pages, la couleur, etc. À 100 francs, tu vends un journal. Comment tu peux vendre un journal à 100 francs payer celui qui le vend, il a 25 francs ou 50 francs, l'impression, les journalistes, euh, tout ce qui est derrière tout ça, pour vendre un journal à francs. C'est impossible. Aujourd'hui, les télévisions, c'est maintenant, c'est vrai que chacun veut faire la télé, et on voit encore plus grave, c'est les télés qui sont dans l'Internet. Mhm. Euh, il n'y a pas de, de licence. Oui, il n'y a pas de... a lois euh, qui gèrent tout cela Des lois qui gèrent ça, est-ce que ça existe Mais bien sûr que le code de la presse est très clair. Et ensuite, pour créer une, pour émettre même dans un pays, mmh. tu ne peux pas créer une chaîne de télévision si l'État ne te donne pas euh, une convention que tu vas signer pour prendre des engagements avec un cahier de charge. Mmh. Mais je vois aujourd'hui même euh, sur la TNT des chaînes de télé qui sont créées et on ne sait pas où se trouvent les licences. Bon, on demande aussi Mais de ça, mettre vous des avez télé. du travail. Oui, c'est du travail, mais je pense qu'après les élections, mm -hmm. euh, le, quand même, euh, le président de la République a demandé à ce que tout soit Comment réorganisé, tout ce qui est, tout doit être revu. Bon, pour l'instant, euh, ça stagne quelque part. Le ministère de la Communication fait, fait son travail. Euh, le CNRA fait son travail. Nous voulons faire TDS, mm -hmm. le travail que le président nous a confié. Mm -hmm. Mais il faut une réorganisation. On ne peut pas avoir une chaîne de télé dans un pays comme le Sénégal sans avoir eu un cahier de charge et une convention. Et c'est le, le, le, problème fondamental. Et ça existe, hein Et ça existe. Alors, euh, de loin, quand on regarde la configuration de télévision à l'heure actuelle, est-ce que vous pensez qu'on peut avoir autant de chaînes de télévision dans un pays aussi pays petit que le Sénégal 15, 15 millions avec la publicité, il faut régler le problème aussi de la publicité. Mais le problème de la publicité, c'est le problème fondamental de, de tous. Parce qu'aujourd'hui, euh, comme j'ai dit hein, encore euh, sur le plateau qu'on avait au niveau de, de, de l'hôtel Pullman, mm -hmm. on ne peut pas aujourd'hui financer la RTS, je le dis très bien, lui donner tous les moyens. Par exemple, la campagne électorale qui va arriver, euh, ils, sont payés, on leur donne des subventions, on leur donne des moyens mhm. pour, euh, pour, pour, pour, faire la campagne. Alors on nous dit que nous faisons, nous, du service public, alors qu'on n'a aucune subvention, on n'a aucune aide. Donc le problème fondamental aujourd'hui de la publicité, et pourtant, euh, le président Macky Sall avait demandé mm aux, sociétés euh, nationales au ministère de tout faire quand même pour nous faire travailler. Pour soutenir le secteur privé. Mais on ne l'a pas. Ils vont tous à la RTS parce que peut-être c'est gratuit ou peut-être ils ont des conventions, ils ont des, solutions. Mais quand ils veulent bavarder, ils demandent tous à venir Ils débarquent à 2S ou à TFM ou débarquent dans des, télévisions privées. Mhm. C'est horrible parce que on ne peut pas travailler à la télévision ici, gagner de l'argent a pas de publicité. <laughs> les gens qui devaient faire de la publicité chez nous, euh, ça laisse à désirer. C'est un gros problème parce que, bon, il euh, y a des choses qu'on ne peut pas dire. <laughs> Alors, en termes de challenge et de défis, hum. quels sont les défis pour la, pour la 2STV pour vous Parce que je pense qu'on a dépassé maintenant le national. On a déjà suffisamment prouvé sur le plan extérieur, la Gambie, d'autres pays. On a réalisé aussi de grands reportages dans d'autres pays et tout ça. Aujourd'hui, Quels sont les défis qui s'ouvrent là euh, Comme vous savez, nous, on a un bouquet de six chaînes. Mm -hmm. euh, nous avons déjà la 2STV, nous avons Racine, Racine, qui fonctionne. Nous avons créé une chaîne pour Kaolak, Kaolak B6. B6 oui. euh, nous avons d'autres chaînes à mettre parce que nous avons la convention et l'autorisation du ministère de la Communication de l'époque. Mm -hmm. Mais le problème aujourd'hui, euh, c'est entre le satellite et la TNT comment on va se réorganiser. Mais je crois qu'après les élections, euh, les élections, nous allons revoir un peu la situation de ces chaînes-là. Mmh. Nous avons installé QTV aussi en Gambie. Oui. Et le challenge que nous avons aujourd'hui, c'est de remettre tous ces, toutes ces chaînes de télé sur orbite pour pouvoir avoir au moins un petit bouquet qui permette aux Sénégalais d'avoir le choix mmh. entre euh, euh, Bantamba TV, QTV 2SI Racine la 2STV euh, 2 à la Alamine et les autres chaînes de télé pour avoir un bouquet au moins une sélection qui permettrait qui aux gens un bouquet qui va nous appartenir voilà qui va qui va appartenir la société Origine SA Origine SA alors votre euh, mot pour euh, souhaiter une bonne heureuse année euh, je prie pour le Sénégal je prie pour que tous les Sénégalais vivent en paix mm-hmm. et que les conditions euh, de vie euh, s'améliorent. Je sais que le président Macky Sall a fait énormément de choses. Mm -hmm. Si je vois aujourd'hui l'histoire de la Casamance, bon, il y a moins de problèmes mm -hmm. comme avant. Mm-hmm. Il mm n'y -hmm. a plus beaucoup de coupures d'électricité. Oui, ça c'est un challenge qu'il a relevé. Il a relevé. Mm-hmm. Euh, les constructions aujourd'hui euh, des pour aller aujourd'hui à Matam, ouais. tu fais 3 heures, 4 heures de euh, les infrastructures, il y a beaucoup d'autres choses. Bon, je suis très fier de voir l'inauguration du musée des civilisations noires. <laughs> Qui vous tenait tellement pour faire partie du des mus du musée des civilisations noires. Mm. Ben, au moins à l'inauguration. vraiment bravo Macky et ça très content je suis très fier pour ça euh, yàlla dimbale nañu bon j'ai été stagiaire j'ai été élève envoyé je suis revenu j'ai vu quand même le musée naître Senghor est parti il nous a laissé ce ce ce ce projet a réalisé comment ce projet que ton ami Abdoulaye Wade a réalisé que Macky a Ah, oui, mais bon, bon, Macky, euh, Macky Abdoulaye Wade, c'est la même chose. C'est la même chose, Parce que Macky était Premier ministre, donc c'est le la continuité de l'État. et quand même, il aurait pu ne pas euh, continuer, parce qu'il y, a des, y chefs d'État, quand ils arrivent, ils prennent euh, de choses, ils le mettent au frigo. Mm-hmm. a beaucoup de mm-hmm. que mm -hmm. Macky Sall a, il faut le reconnaître. Bien sûr. Ce qu'on lui demande, c'est après, si Dieu lui donne le mandat, c'est vraiment qu'il accélère la cadence, comme disait l'autre. Et que, bon, voilà, et qu'il se... Euh, comme il l'a dit, hein, à la signature de son livre, il avait dit qu'il y a beaucoup de poubelles dans Dakar, il y a des garages partout. Uh mhm. -huh. C'est vraiment infernal. Oui, il faut, et il faut bon, remettre l'autorité Voilà, moi de je pense qu'il y a deux choses. Si je pense que lui, s'il passe, mais il va régler beaucoup de problèmes. Si quelqu'un d'autre passe, il a beaucoup de problèmes à, régler. <laughs> ça c'est ñaan yàlla rek. lépp jaar ci may lépp jaar ci yoon ku ci nekk yàlla may ko wërsëgam mu jàll. jërëjëf merci beaucoup euh, El Hadj Ibrahima Ndiaye. puis euh, moi je tenais aussi à remercier les téléspectateurs vraiment. euh, parce que le feedback qu'on a en continu, jusqu'à présent on est en live, les gens continuent de nous regarder, euh, de dire leur point de vue sur le travail que nous abattons ici. Et puis, euh, c'est pas vraiment facile, mais pour le plaisir des téléspectateurs, des Sénégalais, nous allons donner le meilleur de nous-mêmes pour tout simplement rehausser l'image de la télévision. La 2STV a été primée par Eutelsat, vous l'avez vécu, et nous pensons que nous aussi, a d'autres défis, d'autres challenges. Et vous allez voir euh, des choses qui vont dès le mois de janvier. Vous avez commencé déjà à voir, hein, avec vous et nous, avec l'émission euh, également. Il y a Tout est là. Donc euh, il d'autres choses aussi qu'on va mettre. Il y a Ngaloumen, une grande émission Poulard qui, qui, va, venir qui va, nous avons Euh, mis d'autres plateaux qui sont en train de se faire. La semaine prochaine, on verra des émissions Poulard. Ouais. Euh, naturellement, je ne peux pas ne pas Cher parler bien de ça. Le commence par soi-même. Hein? Exactement. <laughs> Très bien. Parce que bon, c'est le <laughs> feeling et, et, je crois que c'est ça. Pas, je, la seule euh, doléance que je voulais vraiment par rapport à la, à la presse, mm -hmm c'est que aussi on, nous allons vers les élections. Absolument, sans de la responsabilité. Ce que j'ai dit à Sonko, euh, c'est ce que je dirai à tout le monde. Mm -hmm. Yen, les journalistes yéen a ñu war a dimbali vraiment que les choses se calment et que les choses se passent dans les règles. ñu ngi leen di ñaan ñaan yeneen journalistes yi nekk ci internet ci leneen ak leneen ak leneen ñu ànd ak dal. comme tu as l'habitude de dire ñu ànd sunu sago. et que tout se passe dans les règles de l'art parce que Sénégal c'est notre pays. on ne peut pas accepter. Mhm. qu'il y de la débandade on ne peut pas accepter qu'il des problèmes dans ce pays la di leen ñaanal yàlla su ngeen ngeen am wérgu yaram ñaanal leen yàlla 2S euh, et toutes les autres chaînes euh, avance parce que euh, c'est la démocratie économique mm-hmm. il faut que il soit tous vraiment au labeur et qu'on travaille mm-hmm. di ñaanal yàlla waa 2S yëpp xale yi nekkoon fii techniciens yi nekkoon nekk fii ñeneen ñi doog a ñëw les journalistes les animateurs les techniciens de son. surtout mon équipe. mooy ñan. Cheikhou Diop El ñoom Tafa Thiam ça c'est les mécaniques. <laughs> c'est la mécanique. non non très bien merci beaucoup li les les tous les autres là. nous nous sommes de c'est madame Ndiaye. voilà d'accord nous on parce que on a <laughs> <laughs> de problèmes. Euh, merci beaucoup. on a de problèmes di leen ñaanal yàlla vraiment. merci beaucoup El euh, li nga ñaan yëpp. ko yàlla nangu euh, di wax tamit c'est vrai. Euh, ku nekk ak sa équipe et a on le voit beaucoup sur le terrain mais c'est underground bi li ñuy wax ne pour ñu am produit ni il nous faut des gens qui sont derrière c'est vrai c'est eux qui abattent un travail colossal pour nous permettre dans ces conditions mais c'est nous qui sommes visibles malheureusement mais kon euh, de l'équipe de Mariam Ndiaye aussi qui n'a ménagé aucun effort pour nous offrir aussi ce beau plateau pour ce 31 décembre. Et Abdoul, Salah et tout le monde également, les les caméramans, tout le monde sont les preneurs de son et tout le les réalisateurs, ceux qui sont au niveau de la régie. Vraiment, on s'est décarcassé euh, pour ce 31 décembre. Et de télévision avec bientôt les animateurs. Il y a Awa, le monde, Salam, tout le monde, Omarou, tout le monde va venir souhaiter vos meilleurs voeux. Et moi, j'anticipe déjà et qu'on reste toujours avec votre chaîne de télévision préférée, la 2STV, avec ses programmes. Merci et à très bientôt.